محمد المكين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi ñu ngi dellu di yeesalaat suñu jaayante ak suñu cofeel ci borom bërëb bu tedd bii ci suñu wet di Mawlana al Abdul Xadim di nuyu mboolem ñi fi teew ñëpp ak ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu eh, di leen ndokkeelit ci weeru tedd yi nga xam ne ci lañu tàbbi di weeru koor di ziyaara ak ñaanal ak ndokkeel kilifa gu mag gi nga xam ne moo nekk ci kanamu yoon wi ci kanamu jabootu sëriñ bi di Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njabootu sëriñ bi yëpp ak mboolem taadu bi yëpp ak jullit ñëpp mu ngi leen di ndokkeel euh, tey jii mooy àllarba di ñaari fan ci weeru koor atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom <coughs> dëppoo ak fukki fan ak ñett ci weeru maaris adar atum 2024 ñu teew fii ci bërëb bu tedd bi ci weer wu màgg wi ngir waxtaan ak jataay yu am solo yi nga xam ne daairatu muqaddamatul xidma baaxoo na di ko ànd ak bokk yi saa bu weer wi teroo keroog muy jeex xam ngeen ne démb lañ ko door tey ji mooy ñaareelu fan bi ñuy ñaan suñu borom defal ñu tawfiq ak ndimbalam ba ñu àggale ko ci jàmm te lépp ñu am ci ndam tey tey itam daje ci ngërëmal sëriñ bi itam euh, tey nag ni ñu ko defe woon ci weesu dañoo tànn tomb boo xam ne bu ama am solo la jox ko itam jëmm ju tedd ju baax itam joo xam ne bu ñu leen waxee ci moom dara aslëf da ngeen xam bu baax xam naa xam ngeen ko sax waaye dañ ko gën a xam incha allahu taala mu war ko waxtaane tomb bi mooy al mursidu rabbaani muwaasafaatuhu wa makaanatuhu maanaam melokaani melokaani kilifag diine melokaani kilifag diine ak wàccuwaay bi nga xam ni am na ko Euh, yaakaar naa tomb la boo xam ne wax na boppam wane na boppam itam ndax bu ñu nee kilifa ba noppi ne diine teg ci war a waxtaane ay meloom war a waxtaane wàccuwaay bi mu am jàpp naan loolu dana tax ñëpp war ko bàyyi xel ñëpp war ko teewlu ndax mursid lañ wax koo xam ne dafa ame ay dafa war a ame ay melo yu ne ci moom yëpp sëñ bi dana ci ñëw teg ci rabbaani kon moom itam mu joxaat ko beneen maanaam mu xóot ndax day delluwaat lépp ci suñu borom subhanahu wa taala kon tomb boobu insha allahu la kilifa gu baax gi war a waxtaane duma dugg ci euh, anaasir dëgg-dëgg waaye am na ñetti tomb yu mag yoo xam ne dana ci dana ko waxtaane dugal ci biir ñetti tomb yooyu yeneeni tomb yoo xam ne dana ko yaatal dana ko tudd insha allah bu ñëwee ci tàmbali bi dana def muqaddima bu ci jógee ñëw ci yi nga xam ne mooy muwasafaat yi mooy meloy maanaam ci biir muqaddima bi dana xamle lan mooy wala kan mooy al mursidu rabbani ak lan mooy cosaanam dana waxtaane itam e, fi ñu ko mën a sukkandikoo ci alquran li alquran indi ak sunna ci xamle ak leeral kan mooy al mursidu rabbani waaye itam ñenteel ba dana def benn laaj boo xam ne dana ko tontu insha allahu ci biir waxtaan wi lépp ci muqaddima bi mooy ndax kilifa diine benn xeet la wala ay xeet la dafa am benn kilifa diine gu am wala dafa am ay kilifay diine yu am su ko defee nag su ko ñëw ci ñaareelu tomb bi mooy nag melo yi boobu it am na tomb yu ci aju incha allah dana ko tudd bu ci bu ci jógee ñëw ci ñetteelu tomb bu mag bi mooy nag wàccuwaay bi bi nga xam ne moom la kilifa diine am ba moom itam am na ay tomb yu yu am solo yoo xam ne sëriñ bi incha allahu dana ci dana ci ñëw ko defee nag comme tomb la boo xam ne jamono laaj ne ko ndax jàpp naa ne jamono ju nekk société bu mën a doon danañ soxlawoo njiit lu mat njiit loo xam ne day ne ci kanamu mbooloo mi di leen won yoon wi ñu war a jaar di leen orienté di leen jubbanti di leen digal di leen tere taxaw taxawaay bu mat sëkkit nag loolu lépp war naa tax kon ñu mën a tànn tomb bu mel nii daairatu mu daa daairatu muqaddamatul xidma ci njiital al imaam sëriñ Afee Buso ak ñi mu ko seqal ñëpp ñu jox ko nag suñu kilifa suñu nijaay suñu xarit waaye di suñu royukaay di al cheikh Mouhamadul Maamoun Mbakke ibn al cheikh Mouhamadul Fadil ibn cheikh Xadim sëñ Maamun na xam naa moom xam ngeen ko bu baax ndax euh, jaar na fi ay yoon te it bu dul loolu yit waxtu wu nekk ñu ngi koy suivre ci ay waxtaanam ak ci ci ci ci ak ak itam ci ay intervention yu am solo waaye du ñàkk rek xëy na ñu am tuuti rek luñ tënk ci wàllu ay jaar-jaaram ci wàllu xam-xam ak li nga xam ne taxawaay yu am solo yi nga xam ne da koy taxawee ci yoon wi tënk bu gàtt rek xam naa sax taamu ko moom ñun ñoo ci insisté rek. ginnaaw njàngum alquraanam ci diggante tuuba ak dégg nga kër ma ñaaw ba wattu alquraan soobu ci njàngum xam-xam rawatina daalay cosaan ji nga xam ne moom da koy tuddee al umm madrasatul umm muy daarul maarif al islaamiya te alaaji mbàkke jaxate ne ca booba yaan saa bu buy waxtaan toujours da ngay gis mu koy sida lu bare bari fa la jànge lu baree baree bari ci njàngum majalis mi ñu xam waaye ba mu ci noppee dafa daal di nag laxas dem ndakaaru dugg nag ci école yi jàng ba am certificat foofu sax daanaka taxawu fa ndax euh, école boobu ñu wax franco te nekk tafsir ahmadou ba bañ demee dañ leen a lu bare bare ñu daal di def seeni seen euh, maanaam shahada ibtidaaiya mu daal di génn nag dem Algérie foofa moom itam mu jàng fa ba àgg ci niveau baccalauréat am ay tënki-tënki jamono ak ay jafe-jafe jamono yu amoon ci wàllu politique ci ci ñoom tax mu daal di fay jóge dem Maroc bi mu ñëwee Maroc nag la defaat maanaam baccalauréat boobu bi mu ko amee la dugg nag ci université Mohammed V bi nga xam ne moo nekk Rabat ci kulliyatul ulum al qanuniya wal iqtisadiya wal ijtimaiya mooy kulliyatul xuquuq rek maanaam faculté bi nga xam ne mooy jàngale wàllu droit fa la am foofu la jàng fa la fa nekk di jàng ba am li ñuy wax maîtrise waaye doyloowu ko mu jóge fa siwaat Sénégal ñëw université bii nga xam ne léegi moom la ñuy woowee université de Cheikh Anta dugg ci kulliyatul adab wala ulumul insaniya muy faculté de lettres euh, maanaam faculté des lettres et des sciences humaines ci ci euh, ci maanaam qismu luxal mooy kon département arabe fa la fa la nekk moom itam de kii fa jàng fa njàng mu yaatu wéyal itam dégg nga dirasa ulya ci kulliyatul xuquuq ba tey ci même université bi ci li ñuy wax troisième cycle ba am fa maîtrise moom itam soog a nag wéyal am njàngam taxul mu doyloo ko waaye dafa daal di inscrire waat maanaam part correspondance en tariq al murasala ci université bi nga xam ne moo nekk Paris muy Paris 3 foofu itam jàng na fa ba am fa benn diplôme bu ñuy wax brevet arabe littéral kon bu lii bu ñu ko tënk rek la ci ay yenn ci jaar-jaaram ci wàllu xam-xam bi mu ci jógee it mu jël loolu lépp nag fas yéene koo def ngànnaay loo xam ne da koy liggéeyale maam Cheikhul Khadim ci toorub lislaam bi muy xam-xam tax na mu am ay taxawaay yu am solo yoo xam ne taxaw na ko yiñ ci mën a tudd rek bari na lool waaye banaa bokk na ci yooyu doyloo goo xam ne ay kilifaam doyloo nañ ko rawatina ci jamono Cheikh Saalix bari na ay daje yoo xam ne da doon am bitim réew moom mii bu jiitewul bo maanaam ña nga xam ne ñoo ko fa teewal itam dana bokk ci ñu ko jiite te mu bokk ci daje yooyu sommet des ville bi amoon Istanbul ci mois d'août ci 1996 te ñu invité woon ci saa Saliou invité ci Touba comme modèle comme ville modèle Touba gis ngir yu bare bari yoo xam ne seetlu nañ ko fi amul bidonville amul nangam ba noppi itam dégg nga nañu ko lëtise macha allah am solo lool tax ñu jël ko comme exemple Nations Unies ci boppam ñoo ko tànn. daal di invité sëriñ bi nag pour mu ñëw fekke si invité Touba itam pour mu ñëw sam boobu moom moom sëñ Mamoun mii bokk na ci ñi nga xam ne teewaloon nañ fa yoon wi te te dégg nga teeween bu rafet te Cheikh Moustapha Salih moo jiite woon délégation ba waaye lu dul loolu itam am na ay taxawaay yu am solo ci suñu diggante ak lu mel ne suñu dëkk yi euh, suñu mbokki naar yi mm, mu commencé ci fi gën a jege muy fii fii fii fii ci gànnaar liggéey na liggéey bu am solo rawatina jamono sëñ Salih ku ne xam ne ne Sarsara dox na ci ay jéego taxaw ci lu taxawaay bu bu bu mat sëkk ba suuf sa nga xam ne fa nga xam ne fa la sëñ bi nekkoon ñu mën caa jot ba def fa euh, ba ba ba ba fi mu nekk di ñu fay def jumaa wala wala jàkka nga xam ne naar yi bi ñu ko joxee sax dañu wax ne euh, lii bu doyul ñu dolli te loolu lépp ci ay jéegoom la ak ay ay taxawaayam waaye itam euh, diggante Sénégal ak Maroc taxaw na ki yu am solo ba moom bokk na ci bu doonul sax ki nga xam ne moo moo dox ba tey jii su màggal Tuba amee mu am délégation ay officiel maanaam yu jógee dégg nga ba Maroc di ñëw di fekke si màggal bi loolu kon ci wàllu diplomatie yaakaar naa ci biir waxtaan bi sax loolu dana ci am wàll incha allah ci maanaam makaanatu euh, al mursid al rabbani allah dana dana ci ñëw kon yooyu di taxawaay am solo bi ci mu nga xam ne moom laay jeexale sax soog ko jox fi mu toll nii euh, mooy ki teewal yoonu murit teewal sëriñ bi ci conseil supérieur des affaires islamiques bi nekk Côte d'Ivoire te loolu itam ñoom ñoo ko sàkkul seen bopp ñoom conseil bi ñoo ñëw ci sëriñ bi gisee ak moom waxtaan ak moom xool yoonu murit xemmem ko ba wax sëñ bi ne ko bu ngi nga boole ñoo koo xam ne dana ko mate ci xam-xam dana ko mate ci wàllu ragal yàlla ak ci jikko ju baax yépp nga yabaadal ñu ko mu ñëw nekkal la foofa ci la Cheikh Mountakha yàlla fi yàgg loolu tamit tànn sëñ Maamoun mu dem Euh, euh, teew di di teew ci dégg nga conseil boobu liggéey fa liggéey bu am solo man mi ngi rek waxtu wi daaw daje nañ fa gis nañ bu baax taxawaay yi nga xam ne taxaw nag fa yooyu yëpp daal soo ko boolee ay taxawaay yu am solo la bokkul ak nag euh, taxawaay yu rafet yi nga xam ne da koo taxawal yoon wi lu mel ne ak durusul xasaniya yi ñu amal ci koor gi ca fee ca Maroc nga xam ne maanaam buur bi day toog ñu invité borom xam-xam bu mag mel ne moom mu jël benn dars dégg nga di ko jàngale ñu baree bari di ko teewee ay chef d'état yu ay kilifa yu mag dégg nga di ko teewee loolu am na ci yoo xam ne def na ko du benn du ñaar du ñett daanaka bi ci njëkk sax mi nga wax euh, maanaam de defe naa la ko njëkk def te amaana yeneen lu ci topp kon mu nekk jëmm joo xam ne daal xëy na euh, yëpp sax bëggul ku ko wax ndax moom ko ñor mooy taalibe gi ak xëy na toroxlu gi waaye nag baax na ñenn ñi xam euh, lenn ci misuwaar ilmiyam fi fi mu jaar ci wàllu xam-xam ba nga xam ne danañ gën a jox itam solo lii nga xam ne moom la ñuy bëgg a andil kon sëriñ bi maa ngi jégalu eh, xëy na lii moom bëggul bëgg woon sax ku ko andi <laughs> waaye nag day loo xam ne mënta ñàkk bu ko defee kon ñoo ngi lay jébal kàddu gi rek incha allahu taala nga andil ñu waxtaan wi ñaan yàlla defal tawfiq te incha allah ngi teewlu ko bu baax a baax bismillah aoudu billahi min asheytaani rajim wax rahmaani rahim alhamdulilahi wahdahu wasalaatu sayidina wa xabibina wa shafiina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim taslima subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalim alxakim rabbi ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahuma ij'alna min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barke borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Euh, ñu ngi ziare bokk yi tedd yi fi teew yëpp ndax bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam sant sëriñ Touba radiyallahu anhu ñaan yàlla fayal nu ko te yàlla taas ñu ci ay barkeem sant Cheikh Mamadou Fadal mi te ñaan yàlla fayal nu ko te yàlla taas ñu ci ay barkeem te ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général de mu yàgg fi loolu te wér ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal sëriñ Touba lépp ma àggale ko ci sago te nu fekkee ko te ànd ko moom noonu lañ ko ñaanalee njabootu sëñ Tuubaa gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di ko ñaanal njaboot kilifa yi yëpp ci ak kii li wër Sénégal ñu ko ñaanal ñu dong yëpp rek yàlla defal ñu jàmm ak mucc ak wér ak i xéewal di sant sëriñ Fallou ci kàddu yu rafet yi am na ci loo xam ne ni nga koy waxee da baax rek waaye jëru ko woon as ndongo suy dabbu daaxee rek daanaka mënoon nga ne wax da ab taalibe buy dabbu daaxee rek la kenn ci dong yi rek eh, ñuy tàmbalee eh, wax ji nag incha allah ci sant bu baax a baax da daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ñooy taxaw lii ndax liggéeyub Sëriñ Tuubaa moom ku ne kaay tabbi ca dafa laa bëgg dimbale kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di teg cant googu ak ñaan gi ci loxo suñu Afee suñ jëwriñ moom suñ jëwriñ la woon ca daara ja macha allah ak ñu koy jàppale ñëpp ba ci abadila yi abadila al ahad ñoom ñëpp rek ak ñi nekk ci daayira bi yëpp ak waa presse bi ñi filmer ñi bind ak ñi jël ak yëpp rek ñu di leen nuyu di leen ziare di bokk yu baax yi fi teew yëpp maa ngi si bëri ci njaboot gi ndeysaan ak njaboot yi ñu ngi sant ñëpp di ziare ñëpp di di di ndokkeel ñëpp ci jataay bi ak ci weeru tedd bi ñu nekk eh, mbokk yi dañoo pour gagner di pour njëkkanteeg waxtu yi rek ndax waxtu yi dafa xaw a gàtt fi mu ne eh, ni ko sëñ Fallou waxee eh, thème bi ñu tànn nañ bëgg ñu sànn ci ay kàddu mooy al murshid rabbani muwasafatuhu wa makanatuhu muy thème li ko wax kilifa ak diine ay meloom ak wàccuwaayam muy sujet boo xam ne bu yaatu la mën a yaatu la waaye comme jamono ji dafa xat dañ ci tënk ay baat rek ci ñeenti point rek lañ koy tënk incha allah gannaaw bu ñu ko ubbilee mooy li mu wax muqaddima danañ def lan mooy muwaasafaatu murshid rabbani maa hiya muwaasafaat al murshid rabbani lan mooy qualité yi euh, kilifa diine lan lan ndax ndax sujet bi daanaka moo plan boppam al murshid rabbani muwaasafaatu wa makaanatuhu kon buñ ko ubbee ba xam murshid rabbani mooy kan xam mu wasafaatam mooy euh, mu wasafaatam mooy lan xam makaanatuhu mooy lan lan mooy wàccuwaayam dal dal tëj muy xaatima bi kon ñeenti point lay doon rek al muqaddima wa ma hiya muwasafatul murshid rabbani wa makaanatul murshid rabbani wa al xaatima ci tënk kon bu ñu tàmbalee rek dañuy wax ne kon gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant ñu ko waxee rek bokk yi fi teew yépp ak bokk yi ñu tàmbali ci liggéey bi ci muqaddima bi danañ ci wax ñetti point daanaka lan mooy al murshid rabbani ak ndax am na cosaan ci alxuraan ak sunna ci diina ji ak fu mu jógee eh, ndax kilifa diine genn lay doon wala yu bari la waaw benn kilifa diine rek am wala kilifa diine yu bari la suñ ci jógee ni ma ko waxee deuxième deuxième point bi mooy meloy al murshid rabbani loolu nag eh, dama ciy indi misaal moo xam ne ndax wolof la ñuy wax ne ku am ku du lakk gannaaw ñun taalibe sëriñ bi lañ. te réew mi dafa dafa doy waar loo wax lu ne ñu firil la ko tawil la ko dugal ko fu ko taxutoon a jóg kon dañuy tàmbali ak sëriñ bi jëm ci sëriñ bi rek dama gis kenn xasida goo xam yéen ñëpp yéen ñu bari ci yéen am ngeen ko muy xoqal bu kaaw ala ala sadati amwaati damay wax ne dafa mel ne sëriñ bi da ci xamle boppam xam ne kilifa diine ni mu ramel waaye ci mbaax ga ak mat ga ak ak méthodologie ba du wax ne nii la mel dama day wax ne gaa yu baax yi la al xaw gaa yu baax yi nii lañ meloon fekk na dama jàpp ne boppam la bëgg a wax waaye nii laa mel ba ne su ko wax da ngay ba ñu la yaa mu bëgg bëgg bëgg ñoo dimbale boobu nag di wane ne gaa yu baax ñi lañu meloon pour bu ñu ci xoolee xam ne moom moo mel noonu su su mel noonu bu def doon nañoo wax nag kon su kilifa gi ni mu war a mel kon damay wax ne eh, loolu bu ñu koy xamee dañuy indi sëñ bi dafa indi li nga xam ne ñëpp ko bokk waaw nga xam ne ñi kilifa yi diine ak ñi si kilifa yi wala képp kuy jullit wala képp kuy murit noonu nga war a mel bu ca jegee nañu door a indi xeeti kilifa diine ak xeet xeet wu ne fu ñu koy layal ak fu ñu koy teg suñu ci toppee nag ñetteelu point bi dama ko waxee mooy wàccuwaayu kilifa ak diine moom wàccuwaay yi bari lool nag wàccuwaayu diine yor na ko yor na wàccuwaayu éducation jàngale yor na wàccuwaayu eh, social yor na wàccuwaayu wàccuwaayu politique yor na wàccuwaayu orientation yor na wàccuwaayu administration yor na wàccuwaayu spirituel yor na wàccuwaayu eh, guidance nga xam ne day day day day jiite nit ñi yor na wàccuwaay diplomatique ak yeneen ak yeneen waaye dañ ci tënk yooyu rek di gàttal. kon bu ñu tàmbalee rek dañuy njëkk ziyaari borom barab bi wax ko rek la ko soppeem ba waxoon du ma wax taalibe ba ndax moom ne woon na du taalibe bu bëgg a cheikh sama sëriñ ne woon na ne woon na ku baax kii du def na xuus ci biiram rek ba xuus ci biiram rek bu ñu ko tuddee du taalibe bu bëgg a cheikh du doom ji bëgg a doon bàyyam waaye ba mu koy ziyaare la ma waxoon rek lañ koy wax ñun tam barkeelu ci ziyaare ko mu di mu di ñaari baytam yu siiw yooyu ngeen xam mu di yaa sayyidan yaa sayyidan fil maali qalla charwaahu wa yaa muhibban fuaadi dahra mathwaahu inni ataytu li wajhi llahi zairakum abghi nay nayla ma arju wa ahwa kon nag sëriñ bi nongoog ñu ngi ñëw di la ziare si yow mi nga xam ne amoo dara ci ay waxin la yow mi nga xam ne sama xol yow rek la bëgg ak sa barab bu tedd bi nga nekk dama ñëw ngir yàlla ziare si la ci ñëw googu rek laay lu ma yaakaar ak li ma bëgg lépp yaa ñaan yàlla defal ma ko ci te yàlla na ko ci yàlla def kon gannaaw bu ñu santee ñëpp gërëm ñëpp siyaare ñëpp siyaare Cheikh Mountakha siyaare sëñ Afiya siyaare sëñ Euh, baara ñu topp ak mbokk yi ko jàppale ci commission bi yëpp ci de Muqaddamatul Xidma ak lañ na saxaaf bi ak média yi di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi leen ndokkeel ci weeru tedd bi ak di ndokkeel ñi déglu ni ko sëñ euh, Fallu waxee ñuy topp jataay bi moo xam ci dëkk bi moo xam ci gox bi moo xam ci réew moo xam bitim réew moo xam à travers les médias sociaux ñuy seere ñëpp di ndokkeel ñëpp ci weeru tedd bi leen xamal ni rek ab ab ab euh, sëriñ bi dafa am ku génn ci daaraam koo xam ne damay wax ne bu ca yemoon rek mu di sëkk mu di maam Thierno maam Thierno jàngal ñenn ci njaboot gi jàngal ñu baree baree baree bare waaye kenn ci ñu jàngal mu di Cheikh Amadou Fadal am ci wax ju wax jum tënk daanaka mën ngaa wax ne rek mën naa tënk wax ji dafa wax ne maag sama mag ju baax ji Cheikh Moustapha al Karim maam Thierno dañoo dañoo yar ne bañ na nar mu jàngal ñu bañ na ar mu yee ñu bañ na jaar ñetti éléments yooyu rek bu ci doyoon daanaka doy na liggéey maam Thierno dañoo dañoo yar bañ na nër mu jàngal ñu bañ na ar mu yee ñu bañ na jaar kon ab yar mënta am njàng mënta ñàkk ak nite mënta ñàkk ak yeew kon loolu rek loolu rek doyoon na boo ko boo ko boo ko boo ko saraawoon rek doyoon na waxtaan eh, mooy wax nag ne waxtaan ci kilifa diine wala ba rabbani ci barab bi jafe na yomb la jafe na ndax tey day sujet bu yaatu lool mën nañ cee wax ba suba du jaax waaye li tax mu yomb itam mooy dañoo toog ak borom xam-xam borom xam-xam yoo xam te warkala suñuy doom lañu ak suñuy ak suñuy jarbaat ak suñu mbokki taalibe di borom xam-xam soo koy ñu gàgganti la barab boo xam ne boo fay wax boo koy ñu gàgganti la yomb naa waxee yow da ngay wax la nga xam rek bu dëngee ñu jubbanti la ko boo koy ñu gàgganti la donc problème problème lu ci am kon sant yàlla bu baax a baax rek eh, ngeen xam ne xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam day ummatu iqra ummatu iqra bismi rabbika allazi xalaq kon xeetu xeetu xam-xam la xeetu jàngale la xeetu yéege la xeetu defar la xeetu yara la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla wax ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azim kon moom ummatu iqra la xeetu jàng la ba tey xeetu xam-xam la xeetu gëstu la xeetu diin la baat yi ñuy wax waxloo nag mu di al murshid bu ñu demee ci alxuraan dañuy fekk ne dañuy fekk ne kon islam diinu rushd la diinu hidaaya la wa hudan wa istiqaama wa rashad ak njub ak noo ko mën a tëgg rek mooy kii gind nit ñi ci ak jub ci ko jëmale ci yoonu yàlla moo tax ca alxuraan ja da ngeen dégg yàlla ba muy ñaan ihdina siraatal mustaqim la yàlla yàlla mu gindi yoon wu jub bi sëriñ bi ci ñaanam gu tedd yi moom itam la waxoon rek ihdi jami ana siraatal mustaqim wa bi saxiixin kun lana bila saqim yàlla yàlla ñu gindi teg ñu ci yoonu jub te defal ñu ak wér donc rachada rushd wa rachad madda boobu bu ngeen demee ci alxuraan da ci ñëw ay yoon yoon Eh, ñëw na ci ayat suratul baqara ñëw na ci suratul araf ñëw na ci suratul suratu huud nga xam ne ak feneen ak feneen ñëw na suratul kahf maanaam bu ngeen demee ci suratul baqara am na fu yàlla y waxee ne batu rosh rosh wa aya 185 wa ida saalaka baada bismillahi rahmani rahim wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daani falyastajibu li wal yuminu bi an lahum yarshudun rachad am na cosaan foofu ci a ñëw am na saw bu nu saw tax ñëw loolu tax ñoo ñëw rek baat bi ñëw na ci alxuraan karim suratul araf ñëw na ci boo demee ci ay 145 sa asrifu an ayaati allatina yatakabbaruna fil ardi bi xayri xaq wa yaraw kulla ayatin laa yuminu biha wa yaraw sabila rushdi la yattaxiduhu sabilan wa yaraw sabila xay yattaxiduhu sabilan dalika bi annahum kadibu bi ayatina wa kaanu anha gaafilin shahid

rabbaani rabb war rabb wa rabb yooyu tam ñëw na ci alxuraan ay yoonu yoon cosaan loolu bu nga xoolee suratul fatiha alhamdulilahi rabbil alamin robot bi nga xam ne moom itam am na lu bari lu ci dox ju nga ne kon am na cosaan foofu fi surati ali imran ay tamani wa sabain ما كان لبشر أن يؤتيه الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين kooku yéen jàngat alxuraan yi Eh, da ngeen ko ci bu baax xam ngeen li ko tax a jóg waaye li ma bëgg a wax rek mooy jëmi baat bi ñëw ak istixaaq yi ci ci aju bi maa kuntum taamaluun bi maa taalamuun kitaab bi maa kuntum tadrusuun am na rabbaaniyuun bi fatxil ra am na ribbiyuun bi kasril ra am na feneen fu mu ñëwee ci sourate Ali Imran itam wa kam min nabiyyin qutila maahu ribbiyuuna kathiir fa maa wahanuu limaa asaabuhum wa maa da'ufuu wa maa stakaanuu wallaahu yuhibbu saabiriin wa kam min nabiyyin qutila maahu ribbiyuuna kathiirun kon kon dana ñëw rab rabbaani dana ñëw ribbiyu yooyu yëpp mën nañ cee taxaw waaye day gën a yàggal rek te eh, dañ ci dañ koy junj rek jàll noonu incha allah fii sunnati nabi sa la wa sallam eh, yonante bi dañu jàngal ne alxuraan ci moo ñu ko jàngal ne nañ roy yonante bi ndax kana fi lakum fi rasulillahi uswatun xasana li man kana yarjullah wal yawmal axir suratul mumtaxana ayal xamisa donc kon nga xam ne yonante bi eh, ku ñu war a roy la ku ñu war a topp la addabani yi fa axsana yi kon moom yàllaa ma yar moo rafetal sama yar

Euh, Sëriñ Tuuba euh, ba noppi yonent bi digle ne xudu anni manasikakum waaw bu ngeen di aj boobu xamuñu ni ñuy aje ne xoolee ni may def rek ngeen def ko may may mursid bi parce que boobu xamuñu luy aj xaj na xaj na naare bu ñu daan aj di ñaan wër kaaba ga dafay xëy dama kii fan mais aj bu bees gii bu islam bi bu ñëwee dafa ne xudu anni manasikakum jël leen ni ngeen aje ci ban sallu kama raaytumuni usalli bu ñu bu ñu aqimu salaa ni ñu koy defee mu ne kaay leen nag xool nu mu defee rek ngeen def ko jullee nii may jullee kon ma ngi irshad ma ngay digle ma ngay wanee kon mooy al mursidul awal laa mooy sallallahu alayhi moo tax ba ko sëriñ mooy al muallimul awal te mooy sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba ko sëriñ bi melal ci muqaddimatul am ndax ci xarfu nun ni ngeen ko xamee dafa ne nasihun bila ghishin alimun muallimun saxiyun bila manin kalama yulayinu sallallahu alayhi wa sallam nasihun bila ghishin da lay conseiller da lay da lay da lay da da lay xelal te du la wor dafa xam te day xamle dafa tabeete du ci du ci tegu làmmiñam te wax ci day néew méthode bu ñu koy waxee day day leer day day nooy day neex a dégg kalaaman yu lay yinu ci xasidu tey sil nga xam ne was fi bi fa bii ñuy wax sëñ bi da ko melal yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na tey sil asir bi ngeen di jàng nga xam ne bi da ci dëx yoon yu bëree bëri tur yàlla julli ci yonent bi ba saare alquran yi sal am na ci fu wax awalu yaa axiru yaa muaxiru kaw naka di bila adan bi taslimin ala sayidina muhammadina habibina murshidina sallallahu alayhi wasallam waxaat ca kanam ne salli bi taslimin wa alihi wa sahbihi fi lxaali wa fi lmaali yaa muqiim alxaali salli bi taslimin ala sayidina muhammadin habibina murshidina wa alihi wa sahbihi wajal xuruf dannat bil xayraati min xayri duruf li ci shahid bi rek mooy al murshid sallallahu alayhi wa sallam pour wax ne sallallahu alayhi wa sallam mooy al murshid rabbani al awal kon ndax euh, rachad ak huda ak istiqaama yëpp mooy ak mbaax te ti Tuubaa dina gaa yu baax yëpp li ñu am dañu ko abbe ci yonante bi yonante bi amuk baax qul xadamaahu aw xadamatahu fi riwaaya uxra fawqa kulli raqaba minhu istaara al xurru kulla man xaba istiara istaara al xurru comme ñi jàng xam ngeen istiara li muy firi waaw kon day mel ni ñu baax yi ak mbaax dëgg yonent bee ko moom te ak mbaax dëgg mooy xam-xam ak mbaax dëgg mooy mooy jub ak mbaax dëgg mooy jàngale ak mbaax dëgg mooy lewet loolu lépp yonent bee ko moom ñu baax ji dañu ko àbbee ci moom waaye moom moo ko moom kon mooy al murshidul awwal sallallahu bi yàlla dogalee nag yàlla loola neex yàlla ñi ñi ñi yaraate bari ñi ñi jiddee bari muy dox addunay dox borom xam-xam yi aw li yu ni baax ñi góor ak ci jigéen nag góor ak ci jigéen danaa ci insisté baatu jigéen boobu ndax ci fin ba dana am lu question bu ñu ci posé li may wax lépp ñëpp ko bokk amul góor ak jigéen ba ku tedd kii feeñ sa radiallahu taala anhu nga xam ne kenn xamul lu lu mu doon nga xam ne moom mooy wa yaxluqu ma la taalamuuna Sëriñ Tuubaa rek na ko sëriñ ba waxee sallallahu alayhi wa mu mu wane ci nag moom mooy kan moom mi ñuy bëgg jàngal mursid mooy kan ak muallim wala cheikh defee ko façon boo xam ne dafa ko def minhajiyya bu bu kowee avec ngeen baal ci waat dafa ànd ak élégance ndax da waxuñ nii la mel yu baax ya gaa yu baax yi de nii lañ meloon gaa yu baax gaa gaa yu baax ya ñooy ñan bopp lu bëgg a waxee mënu ko waxee noonu ah. ndax ndax ndax ndax eh, eh, eh, kéemaane gi ak yàllaa gi ak woyof gi ak njàngale mi waaw te xam nga ne almurshid rabbani bari nay tur waaw bari nay lool te da ngeen di yéen jànk da ngeen di wax ne mbir mu bari tur day wane ahamiya loola importance am mooy tax mu bari tur danañ ko tuddee al imam almurshid rabbani danañ ko tuddee al cheikh danañ ko tuddee al dalil danañ ko tuddee al xojja danañ ko tuddee al aarifu billah danañ ko tuddee al aalim danañ ko tuddee al allaama danañ ko tuddee al xibr danañ ko tuddee al jihbi danañ ko tuddee xujjatul islam danañ ko tuddee ayatul islam danañ ko tuddee al naxreer ko tuddee al marjaa dañu ko tuddee al baxar muy géej dañu ko tuddee al ustaaz dañu ko tuddee al muallim dañu ko tuddee al xalifa yëpp ay tur la yoo xam ne murshidu kilifa diini gi mën na koo tudd waaw mën nañ cee sore ci bu nekk waaye pour gagner du temps rek ñu tënk noonu rek ñu xam ne bu ñu ne bu jëree dellu si ñu dellu si insha allah léegi ndax murshidu rabbaani kenn la wala xeet yu bari la ab kilifa diine defe naa dañu ko firee ci wolof kilifa diine lañu ko firee ci wolof kilifa diine benn xeet la wala xeet yu bari la xeet yu bari la waaw xeet yu bari la Euh, waaye sëriñ bi tënk na ci rek ñetti xeet yoo xam ne mooy euh, yu mag yi mooy sëriñ buy jàngale sëriñ bu yaraate ak sëriñ bu yéegee mu tudd ko cheikh taalim cheikh tar tarbiya wa cheikh tarxiya lan mooy cheikh taalim lan mooy cheikh tar tarbiya lan mooy cheikh tarxiya bind yi bari na ci lool waaye nañ doyloo li sëñ bind rek waaw ndax mën nañ cee dem ci fu baree bare waaye nañ doyloo li sëñ bind ñi di sëriñ ak ñu di sëriñ ñu taalibe ak ñu ndongo yëpp ni ñu war mel ba noppi nag bu ko melee ba noppi nag mu door a wax nag moom nag la mel li may wax li ci ëpp ko jëlee ci majmuu bi mu tuddee majmuu Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne mooy téere boobu sëriñ Abdoul Ahad bi moo lu woon ay xikma ci nekk ak ay wasaaya euh, xam ngeen ko ñu bari ci yéen am nañ ko te sëriñ suñu mbokk bu baax mi suñu kilifa sëriñ Abdoul Ahad bu sëriñ Chouaïb bu bind ko euh, ci ndigalu sëriñ Abdoul Ahad ñu dajale ci yu bare bare bare bare waaye damay wax ne majmua bi maa ko tuddee ñoom Cheikh Abdoulaye majmua bi amul amul amul amul amul date d'édition amul mission d'édition ba ko bind amul numéro numéro d'édition defe naa benn yoon lañu ko génnee daay bëgg nga yéen jàngkat yi yi bu ngeen di cité da ngeen di wax édition baag da ngay a tudd ka ko bind ak bi loolu tudd ba waaye yooyu yëpp amu ci page bi rek ndax yee amu ci waaye ñun dong yooyu yiteeluñu gannaaw jóge nag si implant rek gëm nañu la ci nekk radiyallahu taala anhu te kon li ma li ma tuddoon principe général bi nga xam ne moom la sëñ bi njëkk a indi laata muy indi melooy boppam eh, eh, dafa am ku mu doon ku doon dénk waaye yéen jànkati usul yi dafi borom xam-xam usul a ngi fi eh, dañuy wax ne al ibratu bi umumi lafzi laa bi xusuus sabab bu ñu waxee ma xañ na xikma dara day tax mu ñëw waaye bu bu bu bu nas bi ñëwee dafay am dafay am portée générale li ñuy wax règle juridique day am xekkami sëriñ bi itam wala wasiyee sëriñ bi su fekkoon ne dafa am ku ko adressé itam te day valable si ñun ñëpp ngeen baat ma ci baati nasaraan yi muy dugg na wala dañ koy dem ci ak leeral rek waaye du waaw ndax kii moom dend ak moom di wax baati nasaraan xaraam na sax waaye dañ koy jéem a gannaaw moom lépp la dégg te dañ ciy jublu leeral la ñu bëgg a wax rek ki sëñ bi bind lettre bi euh, kilifa la ci kenn ci kilifa yi waaye da ko ne wacc al hadihi al wasiya hadiyatan ila siraatil mustaqim te siraatil mustaqim moom ñun ñëpp moom la ñu raas la mu ko ca wax rek da ko ne ci gàttal maa ngi lay digal eh, nga xam-xam ak jëf ak bu yar nga ànd nga nag ak cheikh boo xam ne kilifa goo xam ne dafa boole yooyu yëpp alayka bil ilmi wa bil amali ba taaddubin murafiqan cheikhan dal ne ko xam-xam mooy li nga xam ne moom la astam di yóbbuloo ndax boo ko yóbbuloo xam-xam foo jëm dañ lay teral jëf jiw nag mooy ngeen ji yóbbal boo amee xam-xam te boole ci jëf ji yow daanaka dangay ngay bu yàggee dangay ngay waru fal ilmu xayru ma bihi daana al fata li annahu yukrimuhu xaytu ata wal amalu saalihu xayru zaadi fal ilmu duunahu xururun baadi daanaka wala adabul mardi yi jikko ju rafet akub yar ak i teggin afdalu jamaal fa daani duunahu tamaathala ad-dalaal soo ko ci boolewul rek loo am xam-xam loolu liggéey liggéey loo def jëf ji rafet te boolewul ci yar rek liggéey ba jëf ji day des kon da ngay booleem xam-xam ak jëf akub yar ànd ak kilifa gu mat kilifa nag woon law yoon nga boole ko nag nga boole ko ki teggin akub yar ñett yooyu na ko boole aleyka bi salaatil mazkura fahi la daal la rabil wa rabil wara mashkura ñett yi daal yàlla gërëm xam-xam jëf ju sel ak ak akub yar soo ko boolee moom lu yàlla gërëm la muñ nag ci ci topp yàlla yi ndax xam nga as sabru dafa am façon as sabru ala as sabru fii wa sabru euh, ni ngeen ko xamee euh, mu ne ko wala wala si bi sabru ala taati wa an siwal xayri bi la tifaade kon fii am na sabru ala taati wa sabru an siwal xayri da nga da nga muñ nag ci jaamu yàlla yi bu niroo lu diis ci yow na nga ko muñ te sellal ko lu dul lu baax nag bu bu ci gestu te bul ànd ak ci sàkku xam-xam kenn koo xam ne làqut ñetti yële dana am na muñ. dana am dana dana dana jëf dana dana jëfi xam-xam bi dana am ay ay teggin dana dana jëfi lim ca xam te te na nga bàyyi nag ak taswif maanaam di di di di di di naa ko dàq ba suba ngay naa bàyyi ba suba am nañ jot nañ bàyyi déedéet looy war a defee def ko tey lu ne rek def ko ci waxtoom te bul rey kon ne koo xam ne lii ma la wax du ko def lii boo ko defee daal te fuuq jii laka in qaadat in qabiltaha nasxan ya fuuq lii ma la lii ma la digal laay biri la ko boo ko jëfee da nga raw sax maas te loolu mooy na nga jàng na nga liggéey na nga séddal liggéey ba mooy al ilmu naafia wala amalu saalih wala adabul mardi nga boole ci nag as sabru ala taati wa sabru ala al lii daal boo ko boolee da nga raw sax maas kon loolu ñëpp ko moom moom damay wax ne principe général la boo xam ne ñëpp ko bokk kon kay kay kay kilifa gaa këdul kilifa kay mag gaa këdul mag ñëpp ko bokk ñu taalib bi ñëpp ko war a bokk ak jullit yëpp mu jógee fa nag ñëw nag ci euh, euh, ki koy ki lay bëgg a digal nag mu mu xam ne boppam mooy kan ndax du caa génn ko jóg rek digle yow bala ngaa digal dafa am war a mel waaw la mu waxoon waa ji rek ne ko sama kii di sama sama taalibe bi gërëm naa ko lu ko yow na ku la kon léegi bala ngaa gërëm kenn wala bala ngaa digal da a am a mel muy muy muy wane nag moom ni mel def ko rek di ma waxee de façon indirecte ngeen baal ba ci baxeen bi waxut ne nii laa mel dafa wax ne gaa baax yéen nii lañ mel mooy xoq bi ngeen di jàng saa su ne mu yéeme loolu nga xam di ko tàmbalee innamal amalu binniyaat loolu gisul ci xadis wa innama al mulku liman maanaa waa xam ngeen ko ca Buxaari yi ak Muslim waaye mu da cee de da cee teg moom wa niyyati ak tabarruki bi saadaat saadaat yi ñoo ñan gaa yu baax yi ñu bari nañ lool waaye rek tudd tudd ci kenn boo seetloo itam dafay na boole rek globalement rek seen seen seen i melo mu ne maa ngi jooy gaa baax yi yi faar yi fi jógee gaa yooyu nga xam ne suuf si da leen jooy asamaan si leen jooy maa ngi leen di jooy te ma yaakaar ci jooy googu ma leen di ndax li ma leen gisatul gërëmul suñu borom ëllëg ndax dañoo tabbi ci xéewali suñu borom maa ngi sa mi ngi diis mi ngi diis si man di mag di métti ci man ñàkk di mu ñàkk gaa baax yooyee ndax gaa yooyu dañoo làqu dem ci seen borom ci kaw yi daa amum yoon olu waat ñu dem gën a koy duñ gaa yooyu meloon mu ne gaa yooyu dañu daan jaamu yàlla kaanu ibadan bi taatin li rabbihimu wa kaana jalla lahum rabban bi bi binnaati dañoo nekkoon dañu daan jaamu yàlla dañoo nekk ay jaami yàlla di di topp yàlla yàlla di leen joxe xéewal dañoo dañoo demoon ñàkk wird ñàkk wird ak ak ak lekk lu laal ak jëfandikoo lu lu leew ba ba suur defoon nañ leen ci musiba yu mag yi la bokk kaanu ya'uduuna tarkal wirdi ma'a shibaa'i min al xalaali min asbaabil musibaati dañaa dem bu guddi gi soree ba mu lëndëm ba ñu doom yi ñoo di suñu mbàjj suñu màdd yi kii di ñoom ñu taxaw nag di jaamu yàlla kaanu idal laylu axasa satra la xaamoo siraam li axyaa il bi junnaati bu ñu ba nekk tëdd daloo des ñoom yi ñu tëdd taxaw di julli guddi wax ju amul solo wala ay kaf dañ ko bàyyiwul ndax weccee kutul yàlla na nelaw guddi nag xamuñ ko dañ ko weccee di di deele seen borom baaxum fudulan bi dikrillaahi xaaliqihim fa nawmu bi layli baaxum bil munaajaat mu ne fa ñeen waroon tëdd dafa mujj woo ba duñ fa tëdd ndax duñ tudd duñ tudd kumba duñ tudd ngóone naasir la bu ko wolofal naasir la lay laa wa salmaan mu naa rek mu ne ko kubba góone rek ñu nekk ñu fee fa fàttali ko góone baa ñoom daal eh, yàlla rek la ñuy xalaat dañuy ñu dem ci seen gànnaay yu rëy yooyu ñu yoroon nag ci lañ daanee seen i seen i noonu waaw moo tax ñu am ay karamaat am ay xéewal yu rëy rëy mu ne seen bë seen seen néeg yi ñu daan taxaw a tabax arkaanu bayti jamii'an qawmi arbaatun bihaa yu assu bu ñaanul wilaayati ñeenti kenn la seen néeg yi daan tabaxal ñeenti ko tabaxee sumtun wa joon tawilun baadahu saharun wa usratun an shuyuxin bil isharat noppi ak xiif bu gudd lool xiif bu xiif bu yàgg lool ak ak ak ak nelaw ak wéet nag ànd ak kilifa yoo xam ne ñoo la ko teg seen bopp nga fi euh, mursid cheikh la ko tuddee mais gars yu yooyu nag kenn ku nekk ñoom borom xam-xam la ragal yàlla la ku ku yare la ci ay adkaar ak ay xaalaat ay adkaar mooy lu mu lay wax nga koy wax ay xaalaat mooy lu mu lay lu def nga gis si moom wala mu lay xool nga muy tabb ci yow waaye adkaar rek mooy lay tudd sa dañuy yare di yéegi nit ñi ñii di leen yéege ci ay wax ñii di leen yéege ci ay jëf ñii di leen yéege ci ay junju minhum murabbin minhum muraqin bi xaalin waxdaha abadan minhum murabbin bi bil ishaaraati kullun xabirun bi adwaa il qulubi maan yakfil muridina anwaa saadaati am solo mooy dañuy xam feebari xol yi nga xam dañuy nekk ay expert ci feebari xol yi mooy léegi dañu nekk ulama nafs wa ulama euh, yoo xam ne dañuy am euh, rabbaani yun nuuraani yun la ñu doon ndax xam adwa al xulub mais feebari xol yi lépp luy tax ab murit sonn wala ab murit nàkk texee dañ koy xam dik ko mooy la ñoom ñëpp ku ci ne da tedd ragal yàlla jub tabe koo gis nag dénk ko lu koy jëriñ kullun karimun taqiyun dhu hudan wa saxan yumdil nasihati fi kullil bariyaati waaw kuñ gis ku ne rek ñu ngi lay digal di la teete di la teg ci yoon woo xam ne day tax nga jariñu day tax nga jóg te lañ lay digal boo ko defee da da lam defal lañ boo ko defee day fa far lépp lu nekkoon sa bakkan lépp loo xam ne naroon na laa naroon na laa gàllankoor dala koy dindil yam xaw bi taqwa xuduuti nafsi jumlatiha yaa ngi uluman min al mawla saniyaati dañ am xam-xam yoo xam ne xam-xam yu leer nañ yoo xam ne ci suñu borom lañ ko jëlee dañ la koy leeralal kenn ku nekk ñoom dafa am positif positif boo xam ne da koy koweel positif boo xam ne day ànd ak moom jëm ca yàlla mu tedd may may terale borom borom borom borom ubbee yu rëy ya kullun lahu himmatun yarqa biha abadan ila azizin muizzin bil futuhaati te it dañuy gis li ci biir na dañuy gis secret yi lu caag yoon rek loo leen waxul xamuñu ko dañuy gis yàkkare yi ba àññil xal bi ci seen bëti xol la ñuy gisee mu mu mu ne fàng la nga làq sa biir xol defe ne kenn xamu ko ñoo la gën a xam loolu nag beneen mbir la dañuy am leer goo xam ne dafa mel leeru ci jant fu ñu jëm rek jëmale ko fa nit koo xam ne dangay nga amul leer daa nga amul ak ak ak ak ak gindeeku bu ñu la gisee dañ la cee wàll lépp loo xam ne yaa ngi koy nëbbu wala def nga ne de xamee ko yàlla yàlla da koy xamal yaxibu an kulli kawni lmukawini daa nuurin azimin wa sirrin min guyubaati yamxu an alqalbi raynan qad yudannisuhu mahwal mugasili an thawbi najasaati lépp lu tax ci nit bu ñu la gisee dañu koy raasal comme ku noonu la ñuy def loxol yi noonu la def nit ñi mu ne gaa yu baax yooyu nag kenn du kenn du toq seen jotaay ndax taalibe bu toog ñoom wala nit ku bëgg lu baax toog ñoom dañ la yokk ay texe ulaayika alqawm laa yashqa jalisuhum id yaksibuuna almuridina saadati lu tax ñu am loolu rek fi ñu ko jëlee nga xam ne kon fii da ngay ne Ixlaanu Mbàkke Kajoor bi ma tuddee Ixlaanu Mbàkke Kajoor da ciy feeñ ndax wasaa it yi daan am tariixa nangam ak nangam nangam yooyu yëpp boobu fekk sëñ bi sëñ bi weesu na foofu day tëbi day tëbi ci yonente rek sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne la naalu bi xafi rasulil Mustafa rotaban sallallahu alayhi allati yontil maziyaati li ñu am nag fi ñu ko jëlee mooy dañu doon topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ jëlee ay daraj yu kawee kawee kawee ak i xéewal ak i ay ay ay ay pagguteef yoo xam sëñ moom leen ko defal topp gi topp sallallahu alayhi wa sallam tax na eh, ñu am ay ay ay ay ay ay jikko yu rëy a rëy naaloo bi xafi ladi jaa al aminu bihi alayhi minu salaati kulla saati kooku nga xam ne maa ngi julli ci moom waxtu ne topp gi ñu doon topp moo tax ñu am ay jikko yu rëy yoo xam ne danaa bokk na ci yoo xam ne kenn mënu ko bind ci xalima bokk na ci jikko yoo xam ne kenn mënu ko tudd ci làmmiñ kenn am na ci jikko yoo xam ne kenn mënu ko nettali ndax dafa kawe dafa xóot dafa bàttina bokk na ca seen jikko yooyee dañuy dañuy géeju ci xam-xam sharia min xa tabaxuru fi ilmi shariati ba ilmi alxaqiqati min qabli riyadati dañuy boole sharia ak xaqiqa zahir la ñuy boole loo xam ne leen ko may mooy topp kuñ topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw am yoo jiitu mu ne bokk na ci lañ jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ñu wax dara baa ñu def dara te xamuñu ak ak wéram duñ def leen lu wér la duñ wax leen lu wér la mu ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy takkoo ragal yàlla ñu seen borom. bu ñu tàmbali ak bu ñuy daaneel lu ñuy def lu ne ragal yàlla lañ ci jiital inna akramakum indallahi atqaakum jooju alquran waxoon moom la ñuy gànnaayoo moom la ñuy melaloo dañuy dañuy dañuy not seen bakkan duñ def dara loo xam ngistal la ndax bakkan dafa bëri pexe dafa mën a waraate wax tax ñoom dañoo fexe ba not seen bakkan te moom am na fu mu waxee ne malaktu nafsiya wa zahzahtu laay te malaktu nafsiya bëriñu bëriwuñu ku gis koo wax loolu nga bind ko mu ne ñoom gars yi dañoo baax ba nga xam ne dañuy def ne ku ñu gis rek yàlla di gën def defe nañ ne sax ñoom ay karaama sax wala ay kéemaan di feeñ ci ñoom yë yëyewuñ ko yaraw na anfusahum dunal war a abadan wa annahum lam yaliqu bil karamati dañuy takku buñ lu leen lu leen way way tooñ def dañ koy muñ lu leen dal ci à lor wala lu noona dañuy tuub ñoom dellu ci yàlla defe ne ñoom ñoo ñoo def lu noona waaye yàlla eh, lu baax rek moo jóge ci moom fu ñu toll dañuy dañuy mel nañu triste ndax ragal yàlla foo leen fal dañuy dañuy dañuy foog fuglu ndax ndax xam euh, ku am ki ki ki njàkkaar lool mu di euh, subhanahu wa moo tax foo leen fekk foo foo fekk rek dañuy jekk di fuglu di ragal di di di di boole xawf ak raja dañuy ragal naafeq ndax naafeq da ngay def loo xam ni euh, wane loo xam nikul ci yow ndax xam ne nit ki loo loo loo nëbb tam ëllëg dana feeñ ndax xaw xawfal fuduxaati fi hawlil qiyaamati ndax yow qiyaam bu ñu ci àggee moom lu waaye nëbboon dana feeñ ñoom xam bu ñu xam loolu nag moo tax ñu def dara lu ñu naa fekk li nekk ñoom rek la ñuy foo leen fekk dañuy dañuy woyef ngir yàlla dañuy dëggu dañuy dañuy dañuy dëddu àdduna ma tat xiiri afaati lépp luy nëxal mbir wala lépp luy taqal mbir dañ koy dañ koy dañ koy seetal fu ñu ñu dañuy jublu jëm ci yàlla ci jal bu ak jafo bi bi nexa i shikaayaati bu xéewal bu indee allahumma in atatini fa shukru wa in manata faridat wa sabru bu ñëwee ñu sant yàlla bu leneen ñëwee ñu sant yàlla mun ko kon léegi ñoom lu mën di xew rek inha euh, i shikaayati duñu sikk sàkk ñu duñu duñu duñu duñu jàmbat duñu duñu jàmbat fuñ toll rek dañuy wéeru ci yàlla sant yàlla bokk nag seen i meloon tam borom yi xam-xam lañ borom dañoo ñu lewet lañ duñ fi nekk nag di wootee maqaama ka weddi nit al ilmu siimatuhum wal xilmu daydanuhum duna daawi wa inkaaril maqaamaati waaw dañuy dañoo fees dell xam-xam waaye dañoo lewet domm nag bu ñu fa nekk rek di wooteeg nii laa mel rek mën naa léegi xam naa ne déedéet du ñu weddi kenn itam ku ne noonu yàlla def euh, neex na leen maandu nañ ca kon nag maa ngi métti lu seen dem ñoom ñooñee ñooñu nga xam ne seen yoonoo mooy tariqatul Mustafa xayril bariyaati kon moom moom rek moo fi mel nii waaye bëgg naa wax nii laa mel waaye da koy def ci defee woo xam ne bi sóora xayri mubashara de façon indirecte ci gàttal rek mën nañ ci taxaw loolu ci bayti bu nekk daanaka rek sa wax ci lu bare bare waaye pour pour gagner rek ñu gën a kii dem nag ci léegi xeeti murshid rabbani ak benn bu ne fuñ ko teg ci ci ci mbindum sëriñ bi rek sëriñ bi de sëriñ bi cee tënk ñett rek muy cheikh waxoon naa leen ne mursid rabbani ba dañu tur bokk na ci turam cheikh am na fa ko sëriñ bi tudd cheikh tarbiya cheikh taalim cheikh tarxiya gannaaw bi am nañu ci yokk ay tasfiya ak taxliya ak taxliya waaye yeneen mbir la waaye ñett yi sëriñ bi insisté rek mooy cheikh taalim cheikh tarbiya ak cheikh tarxiya kenn ku nekk moo wax ne mooy kan ak lu lu war a daje ci moom ak lan mooy cosaanam mu njëkk ci cheikhu taalim ba tey ci bañ moo cheikh Abdoul Ahad bi la wax ji jóge page 129 130 ba 131 dama ko ci fekk mu ne cheikhu taalim mooy koo xam ne ñetti mbir war naa nekk ci moom war naa am xam-xam bu wér war naa am lamiñ wu leer bañu mel ne lamiñu moom ndax itam tabee kërëfi rek lamiñ wu leer war naa am xel xel mu xel mu rëy xel mu raaja aqal raaja ndax day jàngale cheikhu taalim mu ne mu ne xel xel mu xel mu xam-xam bu wér dafa war a nekk xam-xam boo xam da koy teg ci kitaab bi ak sunna ak waxi gaa yu baax yi jàngale gaa yu baax yi ak lépp lu xel nangu ak lépp lu mbir mu rafet nangu ak lépp lu euh, lay wu jub nangu kon loolu mooy loolu mooy loolu mooy sa charte bu njëkk bi ndax mënoo jàngale te moo xam-xam ndax jàngale moom du dara loolu ay connaissance ngay transférer rek ay xam-xam ngay jël di ko jox keneen kon nag xam-xam yooyu nga jël war naa leer war nga koo xam war nga am lamiñ wu leer itam ndax bi xaytu yubayinu bihi anil maqasid min gayri ihtimalin wala tasawur li anna ay ibara hiya ci tufidul maqasid wa tarfauha ndax booy jàngale foog nga war nga wax lu leer waaye booy tab-tabee ka kéeki ijeeka wala xam ñu li ngay wax kooku taxut ñuy wax booy jàng da nga war a mën a wax cheikh taalim dafa war a mën a leer la danga war a am aql raja da war a am xel mu rafet mu yaa moo xam ne li ngay wax da ngay xàmmee xam-xam yi xàmmee sew-sew yi xàmmee lu yàq ak luy ak ak ak ak luy wàññi ak lu yokk nga nga nga seet te te doo ruus a wax xaw ma nangam da ci roy imam malik rek ko waxee mu ne imam li ëpp ci li ñu ko daan waaj daana wax ne la la adri te ah, imam malik xam nga ne mooy eh, imaamu daaril hijra sallallahu alayhi wa sallam mu ne yow mi jàngale nag cheikh temps war ngaa am xel mu rafet war ngaa maandu war ngaa ànd ak dëgg te bu ruus boo jaam boo jóomee bu ruus na juum naa boo xamul te bu ruus ne eh, xaw ma waaw te lépp loo xam ne day indi sikki sàkk ak sikki sàkk ak moytu ak ak werante nga moytu ko loolu da war a nekk ci lu leer fu ñu ko teg bu mu cheikh taalim sëñ bi ne daal leer na ne euh, xam-xam kenn du ko xam te kenn du jàngale te amoo xam-xam kenn du te amoo xam mu ne téere sax léeg-léeg dana doy ci nit ku am xel ku réyum xel léeg-léeg téere dana doy waaye nag dana des téere rek doyul da war a am kilifa gu la koy wan ndax ay alxuraan moo wax ne bala huwa ayatun bayinatun fi suduri alladina utul ilma mu ne fii kitabil al minhaj imam al ghazali dafa wax ne ana al kutubu kaafiya walakin cheikha fatiha wallahu taala alam mu ne téere yi mën naa doy mën ngaa réewum xel jàng téere xam ci lu bari waaye nag cheikh bi sëriñ bi ne koy jàngal moo la koy ubbil kon ñu ngi santat bu baax suñu sëriñ bi ñu doon ubbil muy alaaji Mbàkke Jaxate mu tedd mi ngeen tudd sànq ñu ngi koy ziare bu baax ndax ubbil nañu ci lu bari yàlla na ko yàlla yokk fan yokk fanam te yàlla wéral ko eh, al kutubu kaafiya walakin cheikh fatiha kon eh, loolu mooy eh, wéeruwaayu cheikh Taalib dafa war a xam ndax bal huwa ayatun bayyinatun fii suduri fii suduri lazina utul ilma bu dee kuréelum xel muus mën na jàngal boppam téere yi waaye nag li gën mooy mu am ko jàngal waaw cheikh beneen cheikh bi mooy cheikhu tarbiya moom doon la ko sëñ bi tudde moom it dafa dafa dafa war a am ñetti mbir war naa am war naa xam bakkan yi ak ak seen état yu biir ak yu biti war naa xam nekk wujud bi ak taqalubaat yi ci am soppi ko yi ci am ak ak atte yi war naa xam tasrif maanaam Euh, loolu nu muy doxee ak nu ñu koy defee donc nu nufus mais dafa war a xam yow mi yow tarbiya bala ngaa tarbiya kenn day am na war a mel li may wax damay wax ne moom moo ko mel la waaye waaye dañ dañ ciy laabiré war ngaa xam bakkat yi xam seeni xaal yu biir ak yu biti xam li koy yokk xam li koy wàññi xam li li tax loolu am bi tajriba te doo ci sikk sàkka doo ci farfarloo war ngaa xam exi àdduna ak ak soppikoom ak attey di ak diine ji li nga xam ne moom la ci diine wax moom la ci orfu wax moom la ci tajriba wax nu mu tuddati eh, aji saam yi maanaam examen katif wala arwax latif maanaam eh, ko koore jëmm yi jëmm yu sew yi ak jëmm yu dijj yi lépp nga xam maanaam war nga xam zahir rek baatin daal ci gàttal zahir rek baatin eh, fu ñu ko teg rek mooy cheikh tarbiya mu ne alquran fi mu waxee ne wattabi' wattabi' sabila man anaba ilayya mu ne sallallahu alayhi wa sallam da daan yar waa këram yi xam nga dañoo bari woon saxaaba yi ay junni junni lañ mais mais yëmuñu woon li li wolof di wax xar wala fukki fukki fas wenn yeta leen di sàmm waaye fukki ñun fukki fukki fukki yeta leen di sàmm kenn ku nekk sa xaala kenn ku nekk sa xaal kenn sa ni nga mel kenn ku nekk ni ngay defare mu ne sallallahu alayhi wa sallam ci ci am na ñoo xam ne dañ wax nañu woor am na ñoo xam ne wax nañ jàngal alxuraan li koy waral mooy am na benn laaj bu ko ñetti laaj ñu bokkul am na ko ne ma ahabul amal ilallahi sala ya rasulallah li ñuy defal yàlla lu ko ci gënal am ko ko laaj mu ne ko al fi sabilillah am keneen ko laaj ne ko ma ahabul amal ilallahi ya mu ne ko buruurul buruurul waliday bi ke dana ko laaj ko ne ko ma ahabul amal ilallahi mu ne ko asalaatu fi waqtiha xam ne kon ñetti jiite kenn ku nekk mu jox la tontu boo xam ne boo ko takam jox ko ci des ndax kenn ku nekk am na la lay faj kee xañ na jihaad koy faj kii bu róoru wàll day ne ma koy faj kii jihaad salaatu fi waxtihaa koy faj waaye boo leen boole woon ñoom ñëpp ci benn pax rek musiba am damay wax ne médecin yi ngeen xam médecin bu jëloon benn médicament nga jël fukki ñu malade nga bind leen benn médicament bi ñii danañ wér ñii danañ ñii danañ waay danañ danañ tane ñii danañ faatu ñii danañ danañ paralysé waaw ndax ñun ñu bokkuñu bokkuñu histoire bokkuñu poids bokkuñu bokkuñu tension dégg nga bokkuñu euh, antécédent ko donc ñu bari bari bokkuñu ko kon kenn ku nekk la lay faj moo tax mu ne sallallahu alayhi wasallam kenn ku nekk daan daan mu ne am na ñoo xam ne sallallahu alayhi wasallam daan insisté pour ñu dugg taxaw guddi taxaw guddi di julli guddi xam loolu moo leen faj yonte yàlla Aïcha daana dem ba léegi di bañ la koy xaw a kii waaye tax taxul wax ko dara te mënoon naa wax ne ñëpp duñu jóg di julli julli guddi waaye am na ñu daan def mu soññu leen ci am na ko daawul def te dawul leen ci dara nañu joxoon ay adkaar ay ay yu ñu jàng te jox ko ñu ci des kon kenn ku nekk rek kenn ku nekk ak lay faj laa bëgg a wax waaw wa cheikhu tarbiya ñu ñëw ko cheikhu tarxiya xam nga ko wax nañ cheikhu tarbi taalim wa cheikhu tarbiya ak cheikhu taalim euh, cheikhu tarxiya cheikhu tarxiya sëriñ bi nee na ñetti mbir koy melal day koo xam ne saa boo ko gisee rek mu am am dolli saa bu waxee ci yow rek dalay gën a yokk xaal saa boo jaxasoo moom rek nga xam ne am na lu mu yokk ci leer kon loolu day mel day bàttine soo ko gisee rek da ngay dolli ko mu ne gaa yu baax yi ma tax ñu wax ne ko ñu wax Mouhamed benn waasian mu ne suñu ko mosaan gis rek danañ dolli ko suñu positif ak suñu bëgg yàlla lu mat semaine boo xam ne du jar ñu jàng dara mbaa ñu def dara ndax jëmm gis nga dañ ko gis rek mu ne ki seexu tarax yi dafa nekk xam ne waxam dalay yokk day yokk sa xaal Abdou Cheikh Abdou Salam Ibn Machiche dafa wax ne bul ànd ak koo xam ne rek ngeen baal ma ci waxee day jàpp ne moo la gën kooku kooku kooku kooku na nga ko sori wala bu mu jéem a wàcce boppam ba bay wax ne yaa ko gën mën naa am boobu da lay wax lu lu neex waaye du dëgg ci moom ànd la ki lay wax dëgg rek ànd la ki nga xam ne boo ko gisee rek sa xel dem ci yàlla ànd la ki nga xam ne boo ko boo ko xoolee rek sa xel dem ci yàlla mu ne am na ñoo xam ne ci nit yàlla yi gis leen tudd leen ak leer la ci xol gis leen day ubbi eh, mbóot yi kon eh, fu ñu ko teg mu ne sa mu ne sëriñ bi nee na sa anas anas radiyallahu anhu nee na bi yonentu sallallahu alayhi wasallam bi ñibbi àjjana bañ denc ko ba noppi nee na bi ñu noppee ci denc ki bay fëgg suñu loxo dañoo yëg witti boo xam ne xam nañu rek kan wujuduhu sallallahu alayhi wasallam am na lu mu fi nekkoon mu ne ma nafat na turab ala aydina min dafnihi sallallahu alayhi wasallam hatta wajadna naqs fi qulubina fa afaada an ru'yata shakhsihi al-karim kana mufidan lahum fi husuli al-anwar fa kadhalika man lahu nisba minhu bi tariqi al boobu moom moom ñu lay wax ndax waree sax wiraasaani mi bu wér a wér mais mu ne anas nee na bi ñu dencee yonte ba noppi rek ba ba denc ko ba maasale ba fax suñu loxo rek yëg nañu widd boo xam ne xam ne am na lu ñu manqué kon am fa am fa nekkoon ne ko daan def kon kooku cheikh tarqiya la bokk moo mu ne am na waaju baax bu ne am na nit yàlla yoo xam ne di leen xool rek jaamu yàlla la di leen xool rek jaamu yàlla la yàlla dafa bari lay jëf lool sëriñ bi ne am na ñoo xam ne jaam yàlla yoo xam ne xam nga du ne xool daan am na jaam yàlla yoo xam ne ku leen xool genn xool rek mën nga caa taxe ba faw waaw loolu xam ngeen li ñu ci bëgg a wax kon am na jaam yàlla yoo xam ne ku leen xool rek genn xool sans yi da sans adan la shaqawata baadaha waaw gannaaw cheikhu taalim wa cheikh tarbiya wa cheikh tarqiya am na lu ñuy wax tasfiya ak taxliya ak taxliya waaye gën a bañ a gën a guddal jëf fii tax na loolu moom da ci ëpp kañ def loole kañ kañ tarbiya kañ taalim tarxiya ko euh, tarbiya ko tarxiya ko moo ko defal boppam mooy kamaal la boo xam ne mooy taxliya boppam taxliya boppam tasfiya boppam taxliya boppam waaw nga xam ne moom day mel ndab rek bu la ko buñ la ko la ko defarlee ba noppi yaa koy raxas yaa koy selandi yaa koy duy ci say bëgg lu baax ak sa farlu euh, bu ko defee bu ñu jógee ci loolu euh, ci ci tënkaat rek ndax mën nañ cee wax lu baree bari ci baat yi mu tudd ndax ñett laa ci wax rek daanaka waaye ñettee ci des muy at tasfiya wa taxliya wa taxliya yooyu yëpp yu nuroo la waaye alxaw bu ñoo koy xam yéen gaa yu baax yi ak borom xam fa ñoo koy xam waaye ñu ñi nga xam ne dañuy fortaatoo ko daba rek mën nañoo yem ci ñett yi nga xam ne ci la sëñ bi insisté su ko defee ñu doon laaj nag léegi makaanatul murshidi rabbani waaw murshidi rabbani lan mooy e, wàccuwaayam wàccuwaay boobu itam ñu mën cee wax lu baree bare ndax wàccuwaay bu wuute la ndax comme day jàngale di former di yeete di laaye biir di ci yàlla di ko teg ci yoonu jub kon mën ngaa wax ne da koy ànd ak moom ci ci dund gépp kon mën ngaa wax ne mën na am na makaana diine wàccuwaayu diine am na wàccuwaayu yar éducation am na wàccuwaayu jàngale am na am na wàccuwaayu social am na wàccuwaayu politique am na wàccuwaayu orientation am na wàccuwaayu administrative am na wàccuwaayu spirituel am na wàccuwaayu direction am na wàccuwaayu diplomatique ci gën ci ak yeneen wàccuwaay yoo xam ne mën nañ koo lim waaye mën nañoo yemani ci yooyu rek tudd yooyu bu ci nañu wax ci baat bu gàtt rek wàccuwaay wu njëkk mooy wàccu wàccuwaay ju diine badaaxata ndax xam ne murshid rabbaani la comme nitu diine la kuy jàngale diine kon euh, am na euh, wàccuwaayu diine woo xam ne day jàngale te murshid bu njëkk bi ne woon na innama bu'istu mualliman innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq kon jàngale ak yare ak gidee lo lo loolu mooy wàccuwaay wu njëkk bi wàccuwaay wu diine woo xam ne moo tax mu am ndax bu toon diine duñu ko teg moom dara wàccuwaayu euh, jàngale ak yar damay wax ne sëriñ bi ba ba mu waxee ak waa ñu baax ñi ci Mbàkke Kajoor ne rabbi asxaabaka bil himma shaafahani la wax rasulullah sallallahu alayhi wa rab wa qaala rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat kon loola lu day war danga yar sa gaa yi ci ci ci ci jitte te bu leen yar ci jàngale képp xam nga day yar ci leneen yar ci jàngale di yar ci himma kon makaana tarbawi yëpp bu rëy la loola ñuy jàngale ñëpp moom lañ moom lañ roy ci moom moom lañ donn ci moom moom lañ roy ci moom ndax mën ngaa wax ne eh, xam-xam bi ak yar bi lépp day laytaayal yar bi ak defar gi ak ak yéegi gi moo tax sëriñ Fallu ci la waxoon ci ne ceeroon dañoo yar bañ a nër mu jàngal ñu bañ na ar mu ya muy lee eh, yee ñu bañ na jar waaw nga xam ne kon lu ci ne lu ci ne day ñëw eh, kilifa diine day am makaana taalimiya ndax day jàngale ndax ku yar rek da ngay jàngale fu ngay wax ñu dégg wa ma euh, innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq wa ma ataakum wa ma ataakum rasulu faxuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu kon sallallahu alayhi wa sallam mu jàngalekat bu mag bi nga xam ne ñiy jàngale ñëpp ak ñi baax ñëpp seenum jàngale ak seenu baax ci moom lañu ko jëlee kon kilifa gi ne day jàngale sëñ daara yaa ngi fi tabaarkàlla di dégg li may wax gën ma koo xam fuuf makaana ijtimaaya nga xam wàccuwaay sur le plan social nga xam ne euh, kilifa diine gu ne fa mu nekk ak lam fay lam lam fay liggéeyee ci njaboot ga njabootu boppam ak njaboot ga ko wër njabootu koñ ba njabootu quartier ba njabootu dëkk ba mu nekk ba ci njabootu biir réew mi eh, xam ngeen ko tatbiqan lii sa sallallahu alayhi waxoon ne addiinu an nasiha wa solxu xayr wa solxu xayr nga xam ne xam nga ne ku mel ne Cheikh Mountakha mi li muy li muy li muy li muy teggoo ci ay coono ak i ak ak di ko def ci ak intervention nu mu toll kilifa yi nga xam ñoon ñekk roon ñëpp kenn ku nekk fa yaa ngay def lu mel noonu tàmbale sa kër sa koñ sa quartier sa dëkk ba ci réew mi waaw kon makaane uh, dawru ijtimaa yi boobu dafa kii ma ne lool li muy séddale ci ay ñam di ko séddale ci ay xéewal di ko séddale ci ay ay téere di ko séddale ci ay ay ay garab ak ak ak ay yére ak lu ne lu ne ci xéewal di ko séddale ci njaboot gi loolu dawru ijtimaa yi la kilifa diine di di def rôle bu rëy ci wàllu politique kooku nag du ma ci sore ndax réew mi dafa sensible fi ñu toll te réew mépp loolu la ñuy déglu waaye politique moom li ma koy dara waxe saa su nekk rek ni ñu sëñ Saliou Mbacké yeewoon rek dafa yomb mu ne weesuwul bëgg falu ak bañ a rek bëgg a falu ak bañ a fale bëgg a falu nag jërul wax lu ñaaw bañ a fale ko jërul wax lu ñaaw ndax dañuy wax ne réew mi ñunu nee na ñoo ko bokk eh, koo fi gis teg sa bokk la baa muy sa mbokkum mbokk wala sa muy sa xarit wala sa xaritu xarit te it coow li lu yëf yëngu bari bari du yàgg ndax sëñ Abdou Lahad bu baax mi waxoon ne ne ay xel mëna su ca dëkk mu ne lu la romb xel wa neex rek ba mu jógee yeggul wala fa mu jëm soriwul ay xel mëna su ca dëkk kon nañ ci boole dal ndax gis ngeen li fiy dal ku ne dafi ñëw ku ne ku ne dafi ñëw eh, kilifay diine yi kilifay aada yi kilifay administration yi kili ñii gestion affaire générale yëpp dañ fi ñëw di seet si kilifa yi di ko def ci mustawayeer yëpp nag ci niveau yëpp waaw kon kooku rôle bu rëy rëy rëy la eh, kilifa diine ndax ay ay équilibre la maanaam dañuy tawasun tawasun ijtimaa yi dañ ci dañ ciy yëngu bëgguma joo sore ndax fi réew mi toll ndax réew mi léegi boo waxee dañuy këf see wax dagg ca dara dugal ko fu leen neex te fekk loolu taxu ñoo jóg waaw kon nitu diine itam dafay dafay war a jàngale dafay war a orienté nit ñi waaw loolu moo nekk ci dëkk bi moo nekk ci dëkk yu ko nuru moo nekk ci yoon wi moo nekk ci yeneen yoon yëpp moo nekk ci dawaayir yi moo nekk ci munazamaat yi ndax kilifa gi nag kilifa gi la ñuy déglu kenn ku nekk am na koy déglu noonu la ñu koy éragé ba àgg ci kilifa gu mag kon ku nekk am nga orientation yooyu joxe yoo xam ne moom ngay joxe ñu la ciy déglu bu ñu waxee ñu ne lu wax gis nga ba àgg ci ñun bu ñu ne ah, du ñu séntu weer dañuy déglu sëñ bi rek waaw bu sëñ bi ne weeri feeñ na ñu ne weeri feeñ na bu sëñ bi ne nañ ko séntu ñu ne nañ ko séntu ñun sëñ bi la ñuy déglu ñun ah, dégguñu fii séntu weer ak yooyu yëpp loolu wax waxee waxee waxee dong la te it dëgg la ci wet ndax sëriñ ba du wax te xamul li mu wax xamul fu mu ko teg lu leer lay wax kon makaana roox ba tey eh, kilifa diine dafay am wàccuwaay sur ndax itam eh, nit ñi doo leen doo neen nag mën nga leen a yilifee matériel waaye foog am lu ci aju nag matériel lu kese duñ ko yilif nit ñi am na leneen lu ci aju loo xam nag ñun ñi ko gëm dañ koy gëm koo gëmul nag gëmoo ko waaye nit ki mën nga ko ëpp matériel waaye am na la ci doole loo xam ne nag amu ko moom loolu lay toppee waaw moo nekk ijaaba ilahiya waaw am na ñu ko weddi waaye loolu comme soobu nga weddi ndax moom man kaane man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur waaw bu ko defee kooku mooy sulta roxiya bi nga xam ne kilifa dina da koy am sulta qiyaadiya nga xam ne moom itam eh, da ngay orienté nit ñi di leen jiite ndax damay wax ne murid gi parce que murid laa sañ a wax murid gi dafa nekk quwwa roxiya la quwa bashariya la quwa iqtisadiya quwa ilmiya la quwa maliya la quwa tanzimiya waaye quwa intixaabiya lay dem donc loolu lépp daje na ci murid gi yéen ñëpp xam ngeen ko te bu ci demoon nañ ko sara waaye jotaay bi bëgg a cate moo tax du duñ ci sori force spirituelle bi yoonu murid nekk kenn du ko werante force euh, humaine bi mu doll ñaata millions yi taalibe ñoo di murid yoo xam ne kenn la ñuy déglu bu newoon kaay leen dee ñëpp dee tey bu moom kay leen kay leen ñëpp fanaan ni fa na quwa bachariya boo xam kenn du ko si sàkka quwa iqtisadiya boo xam kenn du ko si sàkka quwa ilmiya li ñëpp kenn xamul nu mu toll tabarakalla kaar quwa tanzimiya ndax ñëpp benn baat dañuy déglu nekk nag quwa intixaabiya voilà loolu la moo tax force électorale gi mu nekk moo tax nag gis ngeen dërë dërë jéeg tabarakalla tabarakalla alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah mu nekkaat rek xuwa diplomatie ba xëy na boobu ci la ñuy daaneel aw ñuy àgg ci daaneel bi xuwa mu nekk euh, wàccuwaay diplomatique boo xam ne kilifa dina da koy am xam ngeen ni fii euh, recevoir nañu fi ay chef ay chef d'état ba tey yu bare bare ay ministre ay ambassadeur ay plénipotentiaire yu jóge fu ne ci biir réew mi ak bitim réew waaw dégg ngeen Cheikh Mamadou Fadal dañuy wax ne ci année 60 yi euh, yónnee na fi 6 millions Palestine fidaayin palestiniens yi xeex ci Palestine mu yónni leen 6 millions jamono yooyu booba 6 millions bari na euh, pour ne ko ki ki ki président Nasser yónni woon Mouhamed Awad mooy yoroon al majlis islami al a'la ne ñun euh, président Nasser dañoo yónni booba al marhum Gamal Abdel Nasser moo fa nekk daf ñoo yónni ñu xool dëkk diine yi dëkk dëkk islam ñu soxla ndimbal ñu dimbal leen yow nga ñëw nga ñoo jox xaalis mu ne ko déedéet wolof dañuy wax ne euh, domp domp ci sot la bokk mu ne ko fidaay yi xeex ca ca Sinaay yi seen kafet ngoon la ñoom lan la ko jàppalee te danañ gis loolu nu ko suñu suñu Muntaxa feddalee gannaaw bi incha allah kon kon année 60 yi mu joxe 6 millions di ko dimbale Palestine yi kooku acte diplomatique la te gis nga li fi ñëw ci délégation li fi ñëw chef d'attaque rek mu tolloo loolu duñ ci insisté yi ñëpp xam ngeen ko euh, euh, sëriñ bi juñu na sànq délégation bi sëriñ Sall yónnewoon Istanbul ci Habitat 2 nga xam ne boobu na ni mu ko waxee Nations Unies ñoo tànn Touba ñu nekk modèle la ci habitat ndax lotissement lotissement Touba day dëkk boo xam ne amul euh, ay bidonville amul amul amul amul ay bidonville amul quartier flottant lépp dañu ko lotisé te lotissement bi moo jiitu dëkk gi nga xam ku ñëw dañu lay may waa bu la neexee nga jënd dëkk mais amul fàkk dëkk wala ñu bedd yu jubbanteeg bedd yu kii lépp lañu lotisé kon loolu sabbaax la ci Touba la ci nekk ba ñu ko modèle ñu ne invité woon sëñ Saliou nag mu tànn délégation li ko sëñ bi ñu ci ñu bàkkeelu bokkoon ca ñu ko ci sant ko gërëm waaw muy lu muy muy ndam lu rëy rëy nag gisoon ko habitat 2 parce que dañu koy def ñeenti at yu nekk lañu koy def waaw ndeysaan nga xam ne <laughs> bokk na ci anecdote yi ma ciy wax kilifa ga fi nekkoon ministre euh, de l'habitat du ma tudd tur ndax dafa doy waar euh, dafa wax ne booba kilifa réew mi fi nekkoon dafa doy waar mu ne bu ma ko waxoon ne ko euh, dañoo tànn Nations Unies Touba dañuy wax ne ah grand bàyyil noonu rek ndax réew mi dafa neexut ndax buñ ko buñ buñ tànnee Touba dañu naan pourquoi ñu tànn Touba pourquoi tànnuñu ñële pourquoi tànnuñu la nañ bàyyi noonu rek mu ne loolu lay bañ moo tax buñ ma ko Nations Unies joxee information bi rek dama ko wax ci presse bi bu ko xasee wax ci presse bi rek ki dugg ma téye nga <laughs> loolu détail la boo xam ne dafa am solo ci mbir waaye li li ci am solo rek mooy acte diplomatique boobu rek sëñ bi def ko te def yeneen acte diplomatique yu bëree bëri sëñ Abdoulaye fi Irak yónnee na fi Libye yónnee na fi dëkk yu bëree bëri sëñ Saliou yónnee na fi dëkk yu bëree bëri barki démb ci événement euh, euh, tremblement de terre bi xewoon Turquie dégg ngeen ko Cheikh Mountakha radiyallahu anhu yàlla mi yàlla na fi yàgg te wér yónnee délégation ambassade ba gis ambassade yónnee 200 millions jàppale ko le peuple turc kooku acte diplomatique boo xam ne de haute facture ko koy def na ko ci Maroc itam parce que bi Maroc suuf si yëngoo Maroc mu yónni délégation ñu dem seeti ambassadeur du Maroc yu ne yu millions jox ko ko ñoo ko jàppale ko euh, peuple marocain ci loole xewoon ci ñoom te te Serigne Cheikh Mbacké suñu mag ju baax ji xam naa gannaaw bi ne dafa daan jàppale la révolution algérienne ndax sëñ bi tudd na sànq doon jàngi Algérie te loolu ab Sénégalais waxuma ko Mauritanie waxuma ko ay naar ma ko wax waaw mais bi ñuy ñu commencé woon Euh, Serigne Cheikh bokk na ci ñi lan la jàppale ndax ñoom ñoo ma ko wax ñu bokk ci ñoom bi ma fa nekkee ñu gis sama tur Mbàkke nangam ñu Mbàkke yow loo bokk Ahmadou Mbàkke mu ne ko ah nangam nangam mu ne ah kooku di ku baax la ra rajul bu ñu bëggee wax ko jàmbalee dañu naan rajul waaye maanaam kooku jàmbaar la ndax boobu France contre ko jafe na lool ci dëkk Sénégal te Algérie da doon bijou ci France ndax dafa jege France riche ba nag ñu investir fa jàpp nañu ne ñu fa génn mukk bokkuñu woon ak ñun sax ay ñun ñi ay la ñu woon Algérie nag ay département la woon moom dañ ko jàpp woon comme Bordeaux ak Lyon ak Marseille ak dégg nga ak Reims ak yooyu mu am ay préfet ñun ay gouverneur dañu am dépendre ci ministre des colonies préfet yi dëkk Algérie dañaa dépendre ci ministère ñu révolté mu metti woon lool Serigne Cheikh Mbacké dafa bokk ci ñu jàppale kooku acte diplomatique bu rëy rëy la ñoom sax dañuy wax ne xam nga naar dañu bëgg seen bopp rek dañuy wax ne ñoom Algérie ñoo tax ñu am indépendance parce que comme France dafa am intérêt bi ñu ko sonalee ci révolution bi mu ne ah dëkk Afrique yi nga xam daal yàlla xam ne xaar mbay dañuy dem rek ñoom amuñu ma solo waaw waaye loolu fekk yëf yi demewut waaye ñoom noonu lañu ko gisee fi mu ne dañuy wax ne gannaaw yàlla ñoom ñoo tax ñu ameen indépendance waaye li mu ci bëgg wax te li ma xam te mooy wóor na mën a jamono ji ñun taalib bi yëpp ak ñun murid yëpp ak ñun jullit yëpp ñu ngi jàppale waa Palestine suñu xol ak suñuy ñaan ak suñuy taxawaay ndax lee fa xew nga xam ne kenn kenn du ko rafetlu képp ku am xel doo ko rafetlu ci àdduna muy ak tooñ di di doy waar loo xam ne gannaaw amuñu doole juñ ko juñ tag ko def xetale ko nañ ci ñaan rek wa du'aa silaaxul mu'min qul maa ya'ba'u bikum rabbii lawlaa du'aa'ukum te xam ne ne yéen ñëpp ngi ci ñaan te bu ñu ñaanee ba li ñuy wax ne ku ñëpp tafale da nga tooy ndax lay metti na lool rusul na lool ñaaw na lool euh, kon ñu ngi bëgg a kon sëriñ bi incha allah maanaam léegi dafa am lu ñuy posé euh, dama bu ngeen gisee li may li may wax principe yi may wax xalaat yi ak charte yi ñëpp ko bokk góor ak jigéen waxuma ci góor waxuma ci jigéen du du noonu euh, euh, euh, waxuma ci askan waxuma ci xeet li li ñu wax rek mooy kafaa ilmiya nit ki am capacité na ragal yàlla na jub na am istiqaama na maandu na xam li muy def ak charte yi ma dégg nga may wax mais dañoo seetlu nag ne ci amali ahli Touba pour pour pour paraphraser un peu li wax amali ahli Madina amali ahli Touba alxilaaf al dama ne ci ak ak urfil murid yi ak ab xariyati Cheikh Ahmadou Moustapha am na lu mu ci yokk maanaam yeneen churut yi day mel ni ñëpp ko bokk gis nañ fi jàngalekat yu góor gis nañ fi jàngalekat yu jigéen gis nañ jàngal yu bokk ci askan sàngam askan sàngam loolu moom kenn du ko xalaat sàngam mbaa men sàngam mais capacité bi rek moo ci nekk ak churut yi ñu wax waaye dañu seen xilaafa na am na waaqe bu fi nekk waaqe boobu nag gisuma texte bu ko bu ko bu ko bu ko naag mu waaye pratique bi laa gis pratique bi mooy lan pratique bi mooy lan mooy li mu tuddee amalu ahli Touba aw awil orf al jaari bi al amal fi Touba loolu mooy lan ak ab abqariyat Cheikh Ahmadou Moustapha mi nga xam ne mu njëkk nekk xalif xalif sëñ Touba loolu mooy lan yeneen charix yi ma gis yëpp wala muallim yi wax wala ustaas yëpp ku am capacité ba nga ko nekk waaye waaye waaye xilaaf al amma dafa am yi daje ci ku yooyu dafa daje ci nekk ci xilaafaat franc ya loolu mooy lan day mel ni ki nga xam ne mooy jiite ci wàllu googu nga xam ne bu dee ci yeneen euh, barab yi ñu ngi tudd al imam al azma ñi an nasabul qurashi ñi di tudd yeneen waaye fii ci ñun dañuy wax ne même ci xilaafa al amma gi ak yeneen xilaafaat yi parce que yëmul ci xilaafa dafa am ñeenti charte yu ci daje kon damay wax ne loolu mooy amalu ahli touba mooy al urf al jaari bi al amal fii touba mooy abqariyat Cheikh Ahmadou Moustapha radiyallahu anhu loolu mooy lan mooy day mel ni kon ki war a jiite ki jiite te ko day nekk ku jóge ci sëriñ bi nekk góor nekk ko jaaree ci góor bu mag ah, loolu laa gis loolu laa constaté maanaam liiruma ko fenn waaye dama ko constaté rek mooy li am waaw <laughs> ah, ki nga xam ne mooy jiite yëf yi day day mag nekk góor jaar ci góor eh, ba noppi jóg ci sëñ bi ndax li ko waral mooy dañoo am ay cas d'école dañoo am ay cas d'école yoo xam ab gannaaw bi xew na fi te taxul di changé du mu tudd du mu tudd tur waaye su ma wanee misaal rek da ngeen xam ne ñoo bëgg a wax gis nañ fi ñoo xam ne sëñ bi lañ bokk. maanaam dañoo gis koo xam ne sëñ bi lañ bokk moom mag mais ne ko xalif parce que ci jigéen la jaar xam nañ fi koo xam ne moom sëñ bi la bokk mag waaye ko xalif parce que jigéen la xam nañ fi koo xam ne moom mag ci góor la jaar waaye ne ko xalif parce que jigéen la kon li ñu fi gis rek mooy ki fiy nekk xalif day day day day bokk ci sëriñ bi jaar ci góor mag bu ne bokk ci askan sëñ bi maanaam day day bokk ci sëñ bi jaare ci góor mag bu noppi nekk góor kon de day mel ni loolu mooy waaqe bi ah, waaw waa loolu damay wax ne abqari Cheikh Abdou Moussa moo ko moo ko moo consacré ndax gisuma texte man fenn fu ñu ko waxee nañ ko defee nii waaye dafa indi istiqraar te loolu ñëpp ñëpp ñëpp raas nag parce que bu doon loolu mën naa doy waar te te ba mu koy indi te te yemalu ko ci am amma yi da ko yemal ci xilaafaat yeneen yi nag kër goo fi dem boole bi daanaka loolu la fay dox damay wax ne Daaru Salaam géem a dëkk loolu la fa am <laughs> waaw ndindi ndindi a dëkk loolu am ka ka jiite ndax sañ na ma tudd yooyu moom ndax yeneen yooyu fi tudd ñu saaga la weddi la waaye yooyu moom sañ naa ko tudd moom daara sulaa bu xam ne kenn doo fa saaga moom moom fa laa dëkk ndindi it xëy na kenn doo fa saaga xam naa ndax sama sama bàkk ku leen ku leen ko boo fi saaga ñu wuti yaat moom tam daal kay jiitu day mag nekk nekk góor jóge ci sëriñ bi ba noppi jaaree ci góor donc loolu daal day mel ne mooy mooy mooy mooy waaqee bi fi nekk mooy li ma tudd amalu ahli Touba aw al urful jaari bihi al Euh, mu indi istiqraar bu kéemaane nag noo xam ne boo bu toon loolu mën naa doy waar waaw man damay ishaara yi rek jàll ndax borom yi xam-xam fi nekk yoo xam ne li may wax yéen a ma gën a xam euh, bu ko defee rek ñu dal ndax yëf yi mu ne soreetu léegi sëñ euh, Fallou sant yàlla bu baax nag rek ci kaddu yi tey jéglu nag xam naa ne kaddu yi tax koo leer ndax <laughs> magum tukkulóor mu toog ba nëgëni moom tabaarkalla ak ñem te ñeme koor loolu kaar mm, dañuy dabb daaxi rek waaye yaakaar naa li ñu wax yàlla yàlla yàlla def mu leer lu ci jub lu nekk rek ñu xam ne kon yàlla ak seen bu baax ak seen ñaan lu ci dëng lu nekk rek ngeen xam ne suñu ñàkk xam la ak suñu ñàkk mën a wax euh, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah ñu ñaan nag jàmm ci turu yàlla mu di assalaam ñuy jàmm jàmm jàmm jàmm yàlla ñu yàlla jàmmal ne ko suñu bokku mbaax mi daan ñaan rek nga xam daan ñaanal kër yi ñaanal quartier yi ñaanal région yi ñaanal dëkk yi ñaanal village yi ñaanal tool yi ñaanal usines yi ñaanal géej gi ñaanal suuf si ñaanal jaww ji ñaanal idaaraat yi ñaanal turuq yi ñaanal ñëpp yàlla yàlla def jàmm ndax yaa barru yàllaahuma salbni abad min ramadana waak fi di kulla nakat wa salliman ni wa salliman ramadana ramadana bi tamaam summa tasallimanhu min ni ya salaam tawil lana umrana saxih lana badana wa hab lana rushda wa tawfiqa ya allah barki bratu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmatullahi taala wa barakatuh waa euh, kay jërëjëf euh, Cheikh Mouhamadul Mamoun waxtaan wi macha allah euh, am na solo te liñ ci séentu woon liñ ci doon séentu lépp it macha allah am nañ ko ci xanaa du ma ñëwaat di jéem a def taaliq ak yooyu ndax dafa leer ba noppite jot macha allah boo ko bëggee commenté mën nga see indi ay lëndëm waaye daal ñu tënk li li li sëñ bi doon waxtaanee ñu fàttali ko rek ci tënk lu gaaw. tomb bi mi ngi jëmoon ci kilifa ak diine ay meloom <clears throat> ak wàccuwaayam ci njalbeen gi laytaay na ko xamal ñu lan lañ jublu ci kilifa ak diine bu ñu ko waxee euh, waaye ndax jëmmi kilifa ak diine ak ni ñu ko jàppee ñu ndax loolu mënees na ko wutal cëslaay ci alquran ak sunna defe naa ñëw na ci ci lu yaatu tudd na fi ay euh, aaya yu wute ci alquran ak ci ay maanaam ay ay ay ahadis nabawiya yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam waaye ci biir muqaddima bi itam laaj na benn laaj boo xam ne mel na ne tontu na ko ci biir bi muy yaatal te mooy ndax kilifa diine benn xeet la wala kenn lay doon wala ndax mën na doon ay xeet yu bari defe naa ne ci biir waxtaan bi muy indi melo yi te sukkandiku ci njàngaleem sëriñ bi wane na ne kilifa ki kilifay diine mën na mën na doon ay xeet bi mu ñëwee ci ñaareelu tomb bi mooy euh, yan ñooy qualité yi nag yan ñooy melo yi foofu itam dafa mel ne dafa tarkiis rek ci jëmmi euh, ku baax ki Cheikhul Khadim ni mu incarné maanaam kilifa diine ndax ci biir waxtaan wi wax na ne sallallahu alayhi mooy kilifa diine gu mag mooy ki nga xam ne bu ñuy wax kilifa diine dëgg-dëgg mooy ki ci ki nga xam ne moo ne ci njobbaxtan la ndax moom moo moo moo jàngale lislaam jàngale itam nu ñuy euh, toppe ak nu kilifa diine di mel ak yan moo ca war waaye nag ginnaaw sallallahu alayhi itam nag ak saxaabaam yi tedd yooyu nga xam ne ñoo ko wutu woon gaa yu baax yi ba ci ku baax kii moom bi mu ñëwee dafa euh, euh, tëj si jëmmal lépp loo xam ne melo la wu ñuy melale kilifa diine ci ni ko sëñ bi leerale nga xam ne dafa indi maanaam xoqal bu kaaw rek euh, wax ne sëñ bi da cee mel ne ku ci nëbbutoo saxaaba yeeg yonent bi ak saxaaba yeeg gaa yu baax yi waaye fekk na booba dafa bëgg a wane moom ki mu doon ak fi mu nekk ak ñi mu àndal ñi ñu doon ak fi ñu nekk te loolu tamit yenoon na maanaam ndax ci minan Cheikh Mouhamadul Bachir wax na lu mel noonu nee na sëriñ bi ci xoqa dafa def tawriya daa daa mel ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa nëbboo mu ko waxee gaa yu baax yooyu fekk na boobu xam-xam nañ ne euh, ndax euh, noonu mu jàngalee ne euh, maanaam masaalik mooy faatixa bi waaye xoqa mooy xaatima bi xam nga ci masaalik boobu mi ngi ci njëlbeenu woote bi réew mi jaxasoo na bari na ñuy jóg di woote woo ci turu diine ni ay kilifa diine lañ te mën naa am doonuñu ko moo tax boo jàng masaalik ci mujj ga nga gis ni ko sëñ bi leerale ak ni mu maanaam critiquer dégg nga société mi ci boobu jamono wane ne bari na ñoo xam ne dañuy wax ne ay kilifa diine lañ di di di woote ci turu diine mel nangam mel nangam te mën naa am ku leen jeex bu baax a baax doo ca fekk dëgg dëgg diine wala kon daan nga cay fekk waaye bi bi mu bi mu bi mu demee nag moom jóg nga xam ne maanaam yemul ci critique rek ci wàllu waaye dafa daal nag diggante daaru salaam jeeg Touba jeeg nag mu liggéey nag ci wane kan moo war a nekk maanaam kilifa diine nga xam ne da koo tabax daa tabax kilifa diine fii fi Touba ji ak ak ak daaru salaam ba mooy ñooñu ku baax ki doon tudd léegi saa saadixam yooyu àndoon ak moom bañ mel ni nga xam ne noonu la kilifa dina war a mel mu di leen wane nag ci xoqal bu kaaw waaye nag mu maanaam mu defe ko nag ci anam ak tawriya mooy au lieu mu wax ne man nii laa mel ñi ak man nii lañ mel dafa fexe ba nëbboo rek gaa yi baax yi noonu ko suñu maamoon waxee ma maanaam xaw mu lay wax ulaaykal xaw mu te ku ne xam ne ne moom euh, ci moo jiite ñooñu kon loolu itam lu am solo la kon mu ñëw ci daal jëm ni ni Seex Xaadim jëmmale kilifa diine ci fànn yépp nag bi mu ci bi mu ci jógee itam mu indi xeeti dégg nga kilifa diine ak yi nga xam ne ay cëslaay la yoo xam ne sharia da ko da ko wane ak yi nga xam ne cëslaay yi xel la itam nga xam ne xel mën na ko nangu bi mu ci jógee mu nag mu mu mu jeexale mujj nag ci wàccuwaay bi nga xam ne kilifa diine war na ko am te loolu itam mu yaatal ci xëy na waxtu weexat sax de jàpp naa ne li li mu ci waajaloon xëy na ëpp na lim lim andi mooy li li liñ ciy tënk rek mooy maanaam kilifa diine dafa war a nekk ko xam ne dafa war a nekk maanaam ku multidimensionnel wërta nekk rek koo xam ne dafay euh, tënku rek ci benn maanaam qualité wala ci benn melo waaye war naa doon koo xam ne dana doon kilifa diine baat bi maanaam diine ji diine dana doon ku taxawal diine di wane diine di dund diine di jàngale diine waaye da cee war a boole koo xam ne itam day amee dimension yar di yare di jàngale euh, taxaw ci wàllu social itam comme ni mu ko misaalee ci maanaam kilifa yu baax yi tàmbale ci ku baax ki Cheikhul Khadim nga xam ne ku ne xam ne li mu dimbale ak li mu xeetli ci ay ci ci ci ci ci ci ay jaami yàlla waaye bu ñu ko bëggee wàcc ba mu gën ñoo jege nañu xool suñu jàmbaar ji Cheikh mu mu mu Mouhamadul Mountakha ku nekk xam na sëñ bi tudd na ko léegi juj ko fi jamono gën a méttee réew mi gën a ne ci crise ñuy wax ay pandémie ay nàngam ak yi ak waxuma réew mi ak ci bitim réew day jóg taxaw socialement di wane ne moom kilifa diine la dimbalee ñi nga xam ne ñoo ko soxla woo tàmbalee ko nag bay nag sa tànk fii la ko tàmbalee roy ci nag roy ci nag maanaam magam yu baax yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ak waajuram yu baax yi Cheikh Sidi Mokhtar ku ne gis na li li nga xam ne def na ko fii ci ay ndimbal ci wàllu social kon kilifa gi noonu la war a mel ci wàllu ci xëy na ci wàllu politique moom sëñ bi xuus ci lool xam naa <laughs> xëy na fi la ñu toll ak ma ak ma kii ma euh, maanaam contexte bi waaye teewul am na lu mu ci junj lu am solo mooy doole ji nga xam ne waxuma tubaa tubaa duñ koy jëlale waaye diine ji rek ak maanaam tariqa yi am nañ ko ci wàllu maanaam poids électoral te loolu yaakaar naa ne ñi yëngatu ci wàllu politique bàyyi nañ ko xel lool ba saa bu di ngeen ko gisee rek saa boo xamee ne campagne jeges na wala ay man élection daanaka fii moom waxtu bu nekk ñu ngi ñëw ak a dem ñëw ak ak ak feneen ak feneen waaye nag dégg rawatina Touba bari na ci sax ñoo xam ne du ñu tàmbali seen mitin mukk te tàmbali wuñ ko Mbàkke gi kon loolu am na lu muy wane waaw loolu nag xëy na dafa war daa war gën a tax xëy na ñu gën a xamaat bu baax suñu bopp ci buñ ko sajee wax waaye daal mi ngi noonu suñ bi ñëw na itam ci wàccuwaay bi nga xam ne kilifa diine am na ko ci wàllu jubbanti ak orienté saa bu xel yi gëlëmee xol yi jaaxle ñëpp jàq mu jóg taxaw wax def discours boo xam ne ku ci delluwaat da nga xam fi ngay teg sa tànk waaye itam ci wàllu léegi administration yëpp ma dimension administration bi nga xam ne mooy euh, ku ne xam ne xilaafa gi ni ñu ko tëralee wax na ko léegi leeral na ko ak yi ci aju ak yi ci bagaaso yëpp leen lu ki nekk dañ koy nos ba nga xam ne fu waay jógee bëgg a dem maanaam dem jàngi wala nga bëgg a dem liggéey wala nga bëgg a dem léegi defi nangam mën nañ laa tegtal foo xam ne boo fa demee danañ la orienté wan la fa nga mën a jaar ba li nga bëgg nga am ko bu dee wàllu ruux gi kooku moom daanaka moog diine ci sorewuñ ndax euh, ki nekk maanaam dañuy wax al mursidu rabbaani yi rabbaani yi moom yaakaar naa bu ñu ko waxee rek mooy mooy koo xam ne kon man nitu yàlla la war a doon kon mooy yooyu mu indi maanaam cheikhu taalim bi ak dégg nga cheikhu tarbiya bi xataa cheikhu tarqiya bi nga xam ne wax na ne bokk na ci ay melo mooy boo ko ne jàkk rek sa xel dem ci yàlla te saa boo déggee ay waxam itam mu fàtte loolu àddina dégg dëdd loolu àddina nga xam ne soo fi jógee mën nga toog ay fan yoo xam ne du jar sax ngay jàng alxuraan wala ngay uh, tudd yàlla ndax dangay da ngay sax ci yàlla loolu uh, wàll ci wàllu ruux mooy wàccuwaay bi nga xam ne kilifa gi dina am na ko ba ci wàllu dégg nga leadership bi mu wax nga xam ne maanaam poids koom-koom bi yoon wi am bu fekkee dañ ko wàcc ba ci ba mu jege ku ne xam ne ne yoon wu am na dooley économique am dooley social am dooley xam-xam am am dooley lépp loolu nag tax na ba mu man a am benn baat itam nag boo xam ne bu jógee ñëpp topp ci muy lu muy lu jafe nag loo xam ne bari nañu ko bëgg nag ci àdduna bi te dee nga amuñu ko ñu nag ñu am ko yàlla baaxee ñu ko koy itam loolu itam mën naa tey loolu dafa bokk ci wàccuwaay yi nga xam ne kilifa dina ko am ba ci bi mujj jeexale muy waa muy nag wàllu maanaam diplomatie bi dooy itam gis nañ taxawaay yi nga xam ne suñu kilifa gu baax gi taxawee na ko ci te roy ci itam rek maanaam kilifaam yu baax yi nga xam ne ñoom la jiitu woon mën nañu wax sax dama nga tàmbalee ci jamonoy sëriñ bi jamonoy sëriñ bi la daan gis ay délégation yuy dégg nga bàyyi ko Arabie Saoudite di ñëw di ko seet si ko tawat seen i jàmbat mu leen di taxaw ci ñaan leen taxaw ci ndimbal ak ci lépp kon day boole social bi ak wàllu diplomatie bi kon yooyu yëpp daal xam naa ne bëgguma cee gën a xuus ndax mën naa am kon ma xaw a jaxasewaat <laughs> wax wax ji wala ma lëndëmal ko waaye sant nañ bu baax a baax a baax waxtu wi jot sëkk-sëkk Eh, ñu ngi lay ñu ngi lay sant ci turu daayiratu muqaddamatul xidma di la di la ñaanal bu baax a baax yàlla gën laa taxaw te gën laa sàmm gën a gën laa bàyyi ak sa xel ak sa xam-xam ba li nga yéene liggéeyal sa maam nga liggéey liggéey ko ci sa maanaam sa sago te ànd ceeg itam di nga ngërëmam te lépp ñu bokk ko bu ko defee kon bokk yi eh, ñu ngi siyaare itam kilifa yi fi teew yëpp ak maanaam borom xam-xam yi fii nga xam ne ñoo fi nekk yëpp ak bokki taalibe yëpp ak bokki jullit yi di leen fàttali rek ne eh, suba ak jàmm bala ñoo ñëw ci presse bi suba ak jàmm incha allahu taala jataay bu mel nii dana fi amaat ba keroog gi jeex incha allah waaye suba nag ñu ngi war a waxtaane tomb boo xam ne mi ngi jëm ci yi nga xam ne sart yi nga xam ne mooy tënk digle lu baax ak tere ab safaan loolu la ñuy wax ne maanaam dawaabitu al amri bil maarufi wa nahyi anil munkar mbokk mi koy def incha allahu mooy sëriñ Moustapha Diop Ndar kon ñoo ngi ñoo ngi sant ci turu daayira bi mboolem euh, maanaam presse bi ñi nga xam ne ñoo doon jàllale waxtaan wi ba ñi nekkul fii nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi bitim réew maanaam ñëpp mën ci jot waaye bu ñu tuddee lu mel ne MKTV nga xam ne mooy dégg nga Moukhaddamatoul Khidma TV ak mboolem maanaam rajo yeeg télé yeeg euh, dégg nga ak maanaam yi nga xam ne dafa aju ci wàllu maanaam réseaux sociaux yi sociaux yi muy dégg nga plateforme yi ah, hmm? ah site internet yeeg yépp rek ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal di ñaan yàlla daal sëñ bi incha allah jotaay bi nekk jotaay bi yokk barkeeg leer te am nañ ci yaakaar ndax fi ko def ak ak ko defal ak waxtu wi eh, di sant gërëm tey jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد